asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di nu ñaanal di am mbégte ak kontante ci ànd been ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax seen bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu làmmiñ seen taaxirlu waral suñu farlu tegtal du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci xam ne que njëriñ leen ci seen tuddi ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal gan goo xam ne que euh, dafa miine Touba ba mu dëgër mu teel boppam ñëw Ndakaaru xëccoo ko téye euh, miine asalem ba mu dëgër mu teel boppam mu miine diaspora bi ba mu dëgër mu teel boppam koo di nga xam ne ginnaaw ba mu gëmee yàlla ci boppam dafa gëmaat boppam euh, jóge fu sori àgg fu war a sori allah di ñaan yàlla mu lafal ko cat ndax ku gëm liggéey la te résultat jaral la ko lu ne moytu defet jaral la ko moytoo nu ne euh, kooku di cheikh borom produit yu baax yi cheikh borom cheikh borom produit yu baax yi mbokk di turam cheikh borom borom produit yu baax yi nag dinañ ko invité laajaale ko la waral ba mu fëllee ba léegi. ñiy yëngatu ci produit bari lool concurrence bi mel lool mais nag Angleterre ak pomme de terre wuute am na euh, original ak waa Pire nuy naan doy baan piir Pire ak piir quoi ba léegi wute na nangam Pire comme seex borom produit yu baax yi dëggantaan lan invité dama ci dolli dëggantaan comme léegi ñu yori produit dafa bari seex borom produit yu baax yi. Mhm. yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyoog àdduna wërngal këpp bi lay seetaan. waaw Cheikh maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu waa équipe Tektal bi nga àndal yëpp di nuyu képp ki nga xamante ne mi ngi seetaan di nuyu samay client samay cliente yi nekk ci Sénégal Gambie ak Mauritanie moo xam nga nekk Amérique wala France wala Allemagne wala Italie wala Angleterre ñu koy wax UK macha allah ñu ngi fépp fépp fépp ba Suède Sweden macha allah ñu ngi fépp daal macha allah Italie fàttewuma fenn ba ci yeneen réew ba Japon sax. waaw fàttewuñ fenn liñ naan waaw ba Corée Corée Corée foofu yëpp macha allah ba Japon hmm. xam nga Suisse ak yëpp Belgique fàttewuñ fenn daal macha allah ak Espagne ñi ngi fépp daal ak si réewu Afrique yi partout ñi ngi fa ñi ngi jëflante ak doomu aadama yi Gambie yooyu yëpp tudd naa ko ak Mali nit yooyu nag xëy na ama fàttaliku ku ma ama client Nigéria ak Bénin mais yi ma tudd nii moom macha allah bari na trop ay doomu aadama ñu fay lante si ay sénégalais wala ay sénégalais yoo xam ne am ay jabaru moo xam jabaru nit ku weex xeet mm. yooyu daal mm. comme yooyu macha allah waaw waaw mi ngi noon daal ñi ngi nuyu ak waa Dubaay tamit attewuñ leen macha allah waaw mi ngi noonu daal ma tuuti anglais ah, ko <laughs> asalaamaaleykum diaspora yëpp hi everybody is your boy Cheikh aka the man with the good products yes. shout out to all my people watching the video right now shout out to everybody shout out to all my customers from all around the world is your boy Cheikh aka the man with the good products yaa ma jaajëf. yes thank you. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi kooku mooy Cheikh borom produit yu baax yi Cheikh borom produit yu baax yi nekk ci Tektal TV Cheikh borom produit yu baax yi gis nañ ne yow fii Sénégal. Mhm. Euh, créer fi mhm. dafa jafe. Mhm. maanaam loo indi am na ñoo xam ne nag pare nañ toppandoo rek lañ fi nekkee. man nag nee naa roy moom ku bëgg lu baax a koy def. mais toppandoo ku gëmul boppam a koy def. gis nañ ne bi nga fële ba léegi. Mhm. ñi yëngatu ci wàllum produit ans ak fees. Mhm. mel ne tulleeg màlli dañu mhm. bëri lool. loolu lu mel noonu. bu demee da lay yokk wala lan moo la nga ci am aw mitit surtout bu ci kenn yore produit boo xam ne que qualité ba des na. dañuy dem ba mën nañu ñàkk wóolu produit yëpp. te fekk wuute am na. waaw dëgg la affaire yi moom. Mm. nit ki moom boo def lu baax rek comme que Sénégal tamit xëy na liggéey demeewul noonu. Mhm. am fi liggéey tamit jafe na ci benn côté moo tax gars yi bu ñu gisee peut-être xëy na lu xaw a yomb rek wala ngay def carité mélange ak lii ak lii rek ñu copier loolu parce que ñu bari ay explication ngay wax nii rek ñu jël loolu di ko di ko def en mhm. général tamit am na ñoo xamante ne yàlla mooy maye ñi nga xamante dañu am ginnaaw gu baax mhm. ñu doon jigéen a pare ne dañuy jaay produit yi pour mu pour ku bëgg mel ni ñoom alors que ñoom yàlla moo leen bindee loolu te mën nañoo bañ am xam-xam bi defar loolu comprendre nga loolu tamit benn la si loolu am na ñoo xam peut-être na mën nañu nekk góor wala sax ñu nekk jigéen walla lu mën a nekkee xam nga nga gis peut-être sa moroom wala man sama moroom ba xam ne peut-être ñoo màggandoo wala ñoo kiyandoo mu gis la ngay dugg ci affaire di ko liggéey xamul nu la xam-xam bi dikkee wala yooyu mhm. mu gis la peut-être la nga meloon melatoo ko mhm. ñu euh, ñu tamit dañuy def lu mel noonu loolu tamit benn la si am na ñoo xamante ne tamit na ñàkk nañ liggéey moo xam ma xam la moo xam xaw ma la ñu gis ñu ne ah likat yomb na nga mag ndaa nit ñi bëgg nañ ko mm. ñi dañuy def dañuy moo tax lu bari boo jaayee ñu baree bari du mën nañu bañ a gis résultat mën bañ a gis résultat waaw ñun moom gisuñu nit euh, toppandoowuñu kenn royuñu kenn yàlla moo ñu mm-hmm. dimbali mm-hmm. xam nga peut-être bañ ci nekkee ba tey tamit fii nii yàgg naa fi daal mosumaa tuxu mosul tuxu waaw te lépp changé wu numéro wu may numéro numéro da ciy dolleeku sax tere bi waaw tey <laughs> waaw te ñaanuma yàlla tamit changé numéro ñaanu yàlla changé numéro mm-hmm. te mooy euh, kenn plainte kon ma wax dëgg yàlla lii rek doy na exemple boo déggee ñu naan ñu man dara duñ génn yooyu ñu yooyu ay deuxième la de. Mhm. ku kuy génn joxe say numéro ak fii laa dëkk te defoo lu leer mhm. loolu mooy xaru gu mag gi moom. Mhm. mooy xaru gu mag gi. man ngaa nax cent mille personnes mais man ngaa daje ñetti nit ñoom jot ñoo xam ne que. billaay loo doon def ci triant dina la jaral nga bàyyi ko. moo tax euh, Cheikh boroom produit yu baax yi kon ngeen xamee ko noonu kuy ku gëm boppam la goo xam ne que wax dëgg yàlla ba mu jóg du léegi day def sax estati wan la fa mu jógee. ni lii bi may jaay lii wan lii ak lii gëm boppam am na ñoo xam ne que seen passé sax dun ko nangoo wane mais day wane passéem pour wane ne passéem lu jubla la mu toll lu jubla la fa jëm fu jubla la kon ñaan yàlla mu lafal ko cat ba yéene bu mu am ci def lu baax mu am lu kawe njortam moom ak soxnaam ak njabootam ak yëpp bu baax a baax fàtte naa laaj Cheikh. Mhm. depuis nga marié ba léegi gisantuwul takk soxna neex na mos. <laughs> non du loolu sax des fois dañuy tasante nii rek. <laughs> Ah. <laughs> rek. Ah. waaw waa dañuy tase waaw waaw. des fois ñu tase def émission quoi la bëgg wax. waaw def émission nag jot gi jot gi la quoi. Hmm. voilà jot gi la nag waaye. non mais sa digganteeg maanaam jàmm ji neex ji quoi ak TikTok beeg kii yeeg. yooyu waaw gis nga. nit yi def commentaire rafet yéene leen lépp ah. billaay billaay. Eh, macha allah maanaam tamit gis nañ muy lu baax. waay kii boo tollee ne Bombardier rek moom la ah. <laughs> ah barke rasul la ah noonu la ku nekk day ñaan yàlla am soxna su baax hmm. allah soxna su la hmm. soxna am ay qualité yoo xamante ni macha allah daal hmm. waa affaire yi nag moom peut-être sens la rek lañ mën a wax waaye sant nañ yàlla daal ci côté boobu daal yàlla dimbali nañu may na so maa ñu soxna si gën daal si gën waaw macha allah ah, bu baax xam na boppam macha allah xam na boppam mamati waaw moom su ma ko turam sama soxna benn soxna laa. mamati nu mu sax su ma ko sax moom macha allah daal. doo tudd mu xam ne moom la. <laughs> loolu yëpp ay kii a rek. ma madame Konte ah. <laughs> kon yàlla yàlla hmm. barkeel sëy bi defal leen njaboot gu barkeel lu kawe njart bu baax a baax a baax a baax. Cheikh borom produit yu baax yi. Hmm. balaa ñuy kii sax xaaral ma joxe numéro yi bu baax a baax. defal 78. 116 15 48 bindal meer foofu bu dee mënul bindal boppam 78 116 15 48. beneen bi nga def 78 475 06 06 78 475 06 06 beneen bi 60 78 397 65 93 78 397 65 93 beneen bi 70 592 93 94 70 592 93 94 94 cheikh borom produit yu baax yi nekk ci asalem yow bi jafee jot tamit da nga ñëw ba ci asalem nga laajte école lion école Lyon bu fa ñëwee mu def na. école Lyon wala buñ wala bu wootee parce que am na xam dañuy jaawale école Lyon ak école Madié Sall. des fois mais boo wootee si numéro yooyu rek incha allah dina la tegtal daal ba nga. ba nga agsi kon waaw. jeex na boo jotul cheikh jaaran tamit continuer di message rek. Mhm. ndawam yi nga jot. moom la dina la tegtal ba nga gis ko wala ba nga jot ko. Mhm. ci whatsapp bi Instagram bi Cheikh produit. l'officiel Cheikh produit l'officiel. am na nag ñu ma pirate def. am na Cheikh produit des fois ñu lekk xaalisu jàmbur yi sax. kon leeral sa bos bu baax a baax Instagram am na ñuy tijji ay Cheikh produit sama tur. Mhm. di arnaquer ay doomu mhm. aadama. parce que dama jot des fois ay clients yi envoyé xaalis des fois. dañuy mujj comprendre kooku bu leen envoyé wul ay garab wala yooyu quoi. Mm-hmm. ñoom dañuy comprendre après dañuy xam nga ñu yàlla dimba xam na sax am ñoo xam ne sax ñoom feeñ leeguñ ba tey jàpp ne dama lekk seen xaalis peut-être xam allahu alam mm-hmm. mais en tout am nañu jot a feeñ mm-hmm. ma xamal leen ni lii du samay numéro nangam ak nangam bi ñu envoyé des fois bari am na benn femme gambienne bu nekk Amérique dafa bëggoon jënd produit ci man mu dugg ci internet bi def beneen cheikh produit l'officiel fekk keneen la jot Mm. fekk kooku dafa ti maanaam sama tur la jël ak sama télé samay numéro euh, pardon du numéro téléphone ak sama image ak samay produit dugal ko fa dugal ko léegi nag boo comprendre rek da ngay la mais benn Cheikh produit l'officiel yi moo mm-hmm. na logo bu bees sax boo mm-hmm. xamante ne daf logo moo ah? bu verte bi bu verte bi nii gars yi ko jël tamit pirataal ko dugalaat seen ñoom moom yooyu mooy samay numéro numéro leen daal nit ki xam lu mën di pirate moom mënul pirate jëmmu nit ki mënul pirate numéro yi nit ki mm-hmm. yaa ngi seetaan nii jëm kii ngi nii toog di wax xàmmee nga ni mu waxee xàmmee nga jëmmam beneen numéro boo dugal xaalis bu dul yii ak Instagram boobu mën a demit yaa tooñ sa bopp kon xanaa boo dugal xaalis na am fu mu jaar kon numéro yii ñu la bindal mooy Cheikh produit l'officiel mhm. euh, Cheikh borom produit yu baax yi mhm. page Facebook am nga ko Facebook bi léegi nag doxatul doxatul Instagram bi laa lu ma dugal ay témoignage ñi ma jaay ñi kontaan di la remercier yooyu macha allah jeex na kon Cheikh borom produit yu baax yi. Mhm. Cheikh na dañuy ñëw ci mbir yi. Mhm. ci euh, fii Sénégal. Mhm. Euh, émoride am na yoo xam ne il faut ma bëgg lu bari dugg ci émission bi. émoride noo def ak moom taximaan yi toogkat yi. téer yi ak sëriñ yi. waaw sëriñ yi nga xam dañuy toog rek surtout ba ci ay xalif général yëpp. bu dee émoride na leen sonal nga man leen ci jàppale nga wax ñu dégg noo ci mën. garabu émoride moom yaakaar naa ñu bari wax dëgg yàlla ñuy jëflanteel moom macha allah daal. macha yàlla xëy na mën nañu wax moo gën a yomb si garab si li ñuy faj daanaka ñun li lépp lu ñuy faj am nañ ci xam-xam bi macha allah wóor nañu tamit ne lii bu ko nit ki utiliser moo xam émérite moo xam yeneen garab hmm. émérite moom ku ko mën a utiliser moo xam bi nëbb ak bi feeñ hmm. ak mu mën a manifester wa ci yow moo xam muy mu lay ngelawal loo moo xam ba jàpp sa ndigg bi muy metti moo xam xam nga mu lay def mauvaise haleine xam nga waaw loolu tamit émérite daf ko def def des fois quoi xam nga hmm. wala wala wala wala sa bii di def air xam nga macha allah wala doo dem toilette lu bari xam nga mi ngi noonu ak lu ma defee moo xam bu ndëb bu feeñ ma dama lay faj ba nga wér pelek pelek amul nag jox la ay amul garab nga utiliser ko garab gi bu jeexee émérite bi ñëwaat am na sëriñ soo xam tamit dañuy jox nit kenn <laughs> waaw garab daa mel ne seen contrat biir buy daw lan la resal waaw dañ lay jox rek sa biir bi daw ñu la tekki na la ah na la yaa ngi dem loolu lay dur rek moo koy def te ñun suñu émérite amul lool kese lu hmm. lu wér te wóor la wallaay la nga si bu ko hmm. nit ki utiliser xam ne jël na garab goo xamante ne mosu ko jël si këru àdduna hmm. te daf lay faj ba nga amul nag ñaan la ay 3 mois ngay toog da nga hmm. jël ay traitement di ñëw di ñëw ay 3 mois man benn nga gis a continuer fekk ma benn garab gi su ma la ko jaayee boo ko utiliser une semaine day des fekk yow une semaine yooyu yaa a doon léegi nag loo gën a continuer garab gi fekk li mu def na ngay gën a am jàmm waaw am na yoo xamante ne jooni jooni la moom ay ay takk xalaat yi jooni donc suro léegi ma ñëw ci yooyu yëpp xaaral buy métti waaw mii noonu ndoxum siti nag ndaw hémorroïde moom it ni nga lijjanti hémorroïde moom it hémorroïde la moom it da ngay jël lingom waaw ko si paccal siti nga di ko utiliser macha allah mm-hmm. moom moo xam yaram buy tàng wala ak noo manifesté wa si moo xam sa loxo yi di ñuul mm-hmm. waaw wala xam nga macha allah daal wala sa di ruus am na mm-hmm. ñoo xamante dañuy bëgg am pour am karaw ndoxu siti moo leen def seen karaw di rouge bu fekkee da ndoxu siti da jàpp sa karaw di rouge nga bëgg a jël diwu karaw faaw nga faj hémorroïde ba pare hmm. astafurla ndoxu siti ba pare doo ko mën a jël diwu karaw pour utiliser ko hmm. comprendre nga mi ngi tiwo bu bënn rek hmm. yow fattoo tiwo ba nga bëgg sëkk foofu noonu daal bu ko fekk ci waat comme foofu daal a xam fi may waxee daal masha Allah jërëjëf Cheikh borom produit yu baax yi yow bëñ nga xam sëriñ su bari yebuñu ko nga ne da nga koy faj bu buy metti bëñ bëñ nga xam ne ko comme jàpp mën ngaa bañ a nelaw guddi. Mhm. nekk ci problème. Mhm. bëñ mën nga ci dara. bëñ de yàlla xa ki ma ko mujjee may fii si boutique bi la nekk. Mhm. dama bëgg man xaw ma tirise. yaa joxe turam mais na bëñ la. bëñ la waaw. dama bi ma dama doon mi ngi fii fii fii la nekk. ci boutique la yor yaa yaa la tudd. yaa yaa la tudd yàlla xam sax ma ne ma sama bëñ day métti daf ma sonal trop. ma ne amul problème yónni sa booy bi nekk ci boutique mu ñëw ma jox ko garab dama ko ko jox barke Seydina Mohamed sa bër ginnaaw suba la xaw ma ñaata fan noonu mu gis ma quoi. Mm. dem affaire bi macha allah arrêté na bu baax. te ni mu arrêté nii wallaahi dootu métti dafay ak juróomi at. si kattanu yàlla ak mbaaxam. bañ moom ah yalla yàlla daal man kuy saafara jàng ñun moom seen jàngo rek laa soxla. ñun moom jooni jooni yàlla nañu yàlla li may faral di wax rek yàlla nañu yàlla may kon mën a dégg yow Suarez ni mu xawee fange noonu ba bëggoon lijjanti bëñ yi nga ci dara. fange comme fange mooy. ah fange moom mënoo ko lijjanti waaw. <laughs> loolu moom amu ah. ma ci xam. <laughs> Suarez ñu ngi lay jël <laughs> directeur Mm-hmm. atlético oo oh, baax na kon képp ko am bañ buy metti mm-hmm. uh, mu bañ ko dindi mu ñëw ci yow nga rey waaw bu bu ko bañ a dindi moom wallaahi la bu jëlee sama garab da koy def ci ndox mu tàng rek daal di yëngal mu bàyyi ba mu xaw a nugg kon mm-hmm. tàngul seddul mu jël ko lokk ko ci côté bi muy méttee téye fa ndox ma téye ko fa téye ko fa daal koy xuju xuju xuju xuju mu wannaasu ko mu jàll li desaat mu defaat noonu même chose bu ko neexee mën na ko def suba ak ngoon wala heure bu ñu jotee garab gi rek ak guddi gi waaw bu soobee bu benn yoon sax baax na benn yoon sax baax na garab gi du day des bu la neexee nag bu desee nag nga denc ko ba am keneen kuy jaamat bañ bi mel mais bañ moom tàggoo nga ak moom incha allahu rabbi macha allah mhm. jërëjëf euh, Cheikh borom produit yu baax yi nag ma ñëw ci borom biir yi ma mhm. jee ñu ngi lay nuyu Bamba Dieng tojaatal yaram bi baax a baax a baax a baax bii football mhm. ak kan Pape Alé Samb kii ak président Macky Sall ak kan comme biir ku ne nga ne mm-hmm. mën nga koo lijjanti. Mm-hmm. ba biir bi deñ carrément mu oyof. bu ko mm-hmm. neexee dawee nu ko neex. waaw moo xam góor moo xam jigéen. nga am biir bu rëy. biir bu rëy am ñoo xam mooy def noonu seen biir. am ñoo xamante ne bu dee yenn jigéen ñi. xam nga dañu def césarienne am doom rek xam nga mooy loolu ak ñeneen ak ñeneen neen xam nga mm. mais ak lu mu ci mën a demee moom bu soob yàlla bu fekkee amewulu hémorroïde ak ñuy wax amewulu hémorroïde ñu xam mm-hmm. waaw te hémorroïde moom moom ñun moom wax dëgg yàlla sant wóolu na wóolu naa samay garab dama biir biir bu rëy boobaa du amul lay daal bu dee hémorroïde laa bit yaa koy lijjanti maa allah daa wax dëgg yàlla bu ñu jëflantee moom Mm-hmm. di nga sant yàlla bu baax a baax te loolu duñ ci duñ ci duñ ci ki dinaa jox ay photo yoo xamante di nga ko dugal ay photo avant après yoo xamante loolu yàgg sax mm-hmm. xam nga mat na un an xaw ma kooku maa ko jaat mu envoyé moo ta photo yi ma koy dugal des fois témoignage ak yooyu yëpp daal mm-hmm. xam nga xam ne te kooku photo yi boo gisee kii kooku nekkul nit ku ëmb daal biir bi moo rëyoon xam nga am na nag lu ko yenn yenn waay waxoon fii si Sénégal xam nga di ko wax ay affaire ay dëmm la topp ak yooyu fekk xam na ah. yàlla xam na ko sëriñ sëriñ bu siiw boo xamante day génn fii si sa télé bi wallaay la nga sim mu ne ko ay dëmm la topp barki alxuraan <laughs> fam bi jamonoy corona la woon loolu fam bi bi moo ko teewoon pour jóge France ñëw Sénégal pour kooku faj ko. waaw wallaay barke Seydina mu ne ko ay dëmm la jàpp mu ne yooyu. après nag yooyu moo tax ma fenn xamutuma fan la barke Seydina Mohamed barke de yooyu mm. fen la yàlla maa gëm naa la sant yàlla ñun non xam lan moo tax fi nekk nii comme affaire xeetu yokk awra ak yooyu am na nit ñoo laaj sutura buñ ko jàllale ci kaw rek dinañ ah kon kii jëkkëram penalty yi à ah, part fan yi sax la pour jëkkëram ak yooyu quoi mhm. waaw sant si lañ ko wàññilee biir bi fayal ko ndoxu siti mhm. nga ndoxu da ko jàpp ba su yeewoo suba sax pour mu jóg problème la mhm. wala yaram bi di tàng jër di metti waaye sant yàlla daal ñun moom xam nga am ñoo xamante ni moom bu la dara dalee bu metti ñu ne la seytaan la nangam ak sëriñ si ah. bàyyi leen nappaata ah, di tiital nit ñi façon yooyu mm-hmm. ah, yooyu ëpp na daal loolu mooy mm-hmm. yoon mooy kii jàppale leen kii bu leen jiital xaalis jiital leen mm-hmm. wér gi yaramu nit ñi ak seen soxla loolu boo ko jiital billaahi doo jaaxle mukk parce que sa yéene kenn ku ne sa yéene la la yàllay fay bu baax a baax a baax kon képp ku problème mu biir bu ponkal bu ko neexee mu bàyyi entraîné tamit ku dul entraîné bu ko bu mu entraîné bu mu entraîné waaw hmm? nga jël sama garab di ko ci li ma ko ko waxee yow suñu président boo bëggoon jàppale mu gën a am kattan. Mhm. nga xam ne biir bi du ko déranger mu gën a kii mën nga ci dara. bu baax a baax a baax bu baax a baax ci kaw muy ni ma ko muy tili sa garab def ndoxu naanu kaayam ndoxu naanu kaayam macha allah bu ko neexee daf mhm. naan rek naan bu naanee rek rempli waat ndox rempli waat ndox comme après daal buñ ko ko jaayee dinañ ko gën a expliquer yëpp ak laaw da nga fay yëpp ku siiwal ku siiwal kuñ xama kuñ xamul foo non non maanaam ñii xam na xamoon ni nga toll ni toll boobu biir yi dañ ma ak ko manti doon am na ñoo xam ne ñi ngi jaay garabu wolof peut-être sax am na ñoo xam seen biir ñi ngi rëy ma tooñ leen nga tooñ leen buñ ñëwee ma wàññi seen biir dégg ko kon am na pikk yum dóor nag xaw ma ñan la ñuy jaay ay garab sëriñ leen xaw ma biir yi rëy mun na la dara li ñuy jaay dara baaxu ñu bari dañ may kalaamee ak ñoom wallaahi ah, ah. alazim billaahi ñu bari dañ may kalaamee ak ñoom ah, waaye xanaa kalaame sax des fois nit ki mën nga dem sax doo jubóog moom dëgg la mais am na ñoo xam ne leer ne li ñuy jaay bëgg xaalis moo lañ ci dugal bëgg xaalis noonu farlu daal euh, borom produit yu baax yi Cheikh kuy crise di daanu nag saaru épilepsie di daanu rab di déconné hmm. kooku mën nga ko dalal mu jeex bu baax a baax barki dem moo laa si may sama benn xarit boo xamante ne nii hmm. fii la dëkkoon maris mais dañoo tuxu waaw la nga si ndax affaire yooyu kër gi amoon moo xam am ay dëmm ak yooyu ah. wallaahi da doon joué série fii hmm. mën naa wax sax peut-être xëy na man lépp lu ma damay wax ah, parce que wala wax loo xamante gawuma ko man hmm. melu ma noonu quoi waaw wax dëgg yàlla da doon joué série am na série ma fàtte turu série bi daal affaire drop lañ doon utiliser genre yooyu quoi mais série la nag kooku lu kooku loolu moo dal kooku ki may wax ni hmm, góor loolu ah, jigéen la jigéen la waaw série bi sa sama xel ni ko mais fàtte naa mais mi sama xel hmm, hmm. waaw kooku looloo ko dal genre yooyu ko après day crise di kii ay dëmm ko jàpp yooyu fekk comme dëkkoon moo am affaire yooyu xam nga kër ga koo luyee waaw famem ñoo kii mais sa keroog ma ko seete daaw sama ta am na xamante li ma ko defee loolu dafay ànd ak doomu taal. dafa am doomu taal doomu taal comme doomu taal li nga comme nga togg sa añ yi comme ñi nga xam dañuy togg mais duñ toggee gaz. doomu mm. taal boobu laa laa boole ay sunguf yoo xamante ci àll bi laa koy plante. Mm-hmm. ay sunguf boobu ñu jaxase ko waaw mm. comprendre nga. loolu ko piis ko ko léegi day correct léegi. day correct waaw li ci des nag da ay affaire waaw. mais loolu sama soxna man du ma fen sama soxna maa ngi ko yónnoon ay boppu jën waaw dafa am leen koy liggéey ko ba xam ne dafa foog ni kiiwul xam nga xam-xam maanaam yaatu na mais dara mën na xeebu say bët mais fekk la kii la faj bari na si kaw nga xam ko ak ñàkk koo xam ku mën a boppu jën bi kese mooy faj loolu ak leneen ak leneen comprendre nga mm-hmm. moom dama koy ko composé loo xamante ne ni si boppu jën lay ànd ak yeneen affaire yu baree bari loo xam ne da koy suuroo si douze ci douche bu soobee yàlla wallaay bu fekkee dëmm moo la jàpp boo koy suuroo mu lay mu muy jëfaru daf lay bàyyi carrément. wax carrément ak ku mën doon wallaahi. mais yéen ibaadu xam ne gëm ne dañ d'accord ne dëmm amul dañ naan saytaane. ñenn ñi tamit jàpp ne fii Sénégal tamit képp ku ñu jiñ dëmm ku ñàkk lay doon doo gis ko yor ñu jiñ ko dëmm. waaw loolu moom nit ki Sénégal xam nga nit ñi moom fi ñuy gisee doomu aadama mooy loolu. Mhm. te tamit ñi naan dëmmam ñi ne am ñoo xam ne yàlla am na am ñoo yàlla amul affaire bi noonu kese la ku nekk li nga gëm rek waaw ah, en tout cas ñi gëm dinañ gëm leen ñi gëm dinañ gëm leen loolu kese moo fi nekk daal méttiwul daal méttiwul de ah, mm. jërëjëf Cheikh borom produit yu baax yi léegi nag boo comme génn nañ ci dëmm ñu ñëw ci nag rab mm-hmm. rab moom bu amoon tribunal buy àtte rab ak jinne yi mm-hmm. ak sëriñ si mm-hmm. defe naa ñoo sëriñ si ñoo fay ëpp ci clamante comme ñoom ñooy tooj askan wi sëriñ si bañ at bëgg àtte wala sëriñ si leen di wala rab yee provoqué foofu daal problème nga fa waa diggante rab ba jinne mhm. mm. waaw ñun comme li may faral di wax ñu bari pour mu leer man aw may jinne amooy jinne garabu cosaan laa yor garabu cosaan nga yor donte jàng nañ alxuraan macha allah it ba ñu nekk xale ba ni ñu sol nii mhm. macha allah ak arab ak mhm. mille cinq laa am sama bagu euh, diplôme arabe sama nijaay jàngam ñu ko oustaz moo njaay caam fii ci yara sama rakku yaay mm. jàng nañ xam nañ ñu mm. bëggoon maas ak lii xam nañ ñu ko defee waaye xam-xamu garab Mm-hmm. laa bëgg moom la ma yàlla dimbalee mm-hmm. may ma ko ma siy faj di ci def lu ma neex macha allah mm-hmm. comprendre nga waaw ku euh, ku am problème moo xam ne jinne peut-être daf la jàpp waaw wala rab di la sonal wala ngay gént di sëy yëpp am nañ ay garab yoo xamante ni macha allah ya daal boo ñu expliqué daal bu ñu ci mën ne dinañ la liikat mën nañ ko bu ñu ko mënuñu ne mënuñu ñun tamit dañuy dox si côté boobu mais rab tamit da ngay dégg parfois comme góor bu amul envie ci jigéen Mm-hmm. mën na ne rab da koo sonal ba talul mm-hmm. dara du mm-hmm. takk sax dabar jigéen boo xam ne tamit dafa téye boppam du sëy ñu ne tamit rab ko jàpp ba du sëy jigéen bu bëgg góor ñu ne rab la jigéen bu bëggul góor ñu ne rab la góor bu bëgg jigéen ñu ne rab la góor bëggul jigéen ñu ne rab la mais rab tamit mooy kan kon loolu tamit des fois gars yi ci def erreur tuuti am na ñoo xamante ne ni buñ toogoon kalu nii sax ñu ne tey rab yee ñëw dëgg la am na yoo xam ne da koy def am na xamante ne du du si dara <laughs> des fois nag gars toon ay rabu ja rab yeeg yooyu fekk xam dëgg la na yenn yu bëri ñoom la mm. mais des fois gars yi dañuy tooñ di tooñ rab yi lu ñu wax ñu rab la dëmm la jinne la mm-hmm. wax dëgg yàlla man nag aw may rab aw may jinne aw may kii mm. comprendre nga mais incha allah ku rab jàpp wala ngay daanu crise wala kii boo ñëwee ma faj la nga faj ko waaw wala dëmm jàpp la bo man moom si une semaine nga gis résultat macha garab gi des nga continuer nga gën a gis njariñ mm-hmm. man moom noonu la de amul ay traitement trois mois wala quatre mois ngay ñëw di day ñëw di jënd bu jeexee nga jëndaat bu jeexee man demee mu ne benn yoon laa lay jaay sama garab hmm. moo xam ak garab feebar bu la mënti dal gis euh, mhm. na ne parfois tamit ku rab léeg-léeg dëkkee di faju mais mhm. da gis lu mu faju faju da nga gis tamit euh, mhm. boo dañ naan rab bi dem na mais ñëwaat na la ñuy parce que dëgg la loolu dëgg la am na ñoo xam dañuy def na parce que loo gis rek garab goo gis rek hmm. dafa am lu gën a foor hmm. am na garab yoo xamante ne dañuy faj rab mën mm. naa timal garab yu bari mm. a foor a yamama am yoo a ëppante doole mm. noonu bu nekk ak ba nga tool daal comprendre nga loolu tamit mi ngi ci waaye ñun moom wax dëgg yàlla xëy bu ne fii su ma buñ ko déplacé wul mi ngi ci suufu ma ko jox sama man lay jàppale ci liggéey bi bu question li may liggéey ak moom moo tax ma koy waxal wala ñu complot man gowma yooyu nee démb biñu tëddee ci la jël garab gi suuru si wallaahi da doon wàccu wallaahi la da ko suuroo quoi. Mhm. mu doon wàcc ci guddi gi. wallaahi comprendre nga parce que maa ngi koy tooñ sax fañ day toog fu mu toog nelaw mu ne ko na si gàllaaj <laughs> wala yooyu wallaahi. Eh, waaye ah. fii moom ñun mm. fii moom ku nekk moom di nga sant di nga sant yàlla fii moom amut waaw ah. Mm. ci kaw nga bëgg nga bëgg nga da nga rey rab wala da nga seet ñenn ñu di naan rab bi dama koy rey yow da ngay rey wala. non man doxuma ci yooyu. doxoo ci yooyu. man lu set te sell te wóor laa yor. Mm. macha allah lu set te sel te wóor dañ jox garab nga dem suuroo ko mm-hmm. suwaat bu fekkee am na ngelaw yoo xamante ni seytaane lay nekk bu fekkee si kaw sa bopp di metti mm-hmm. am ngelaw xam seytaane moo la ko def mm-hmm. comprendre parce que maa dugg ci bopp bi metti sax nga ñëwaale foofu ok waaw ba rek mais en tout cas daal wax dëgg yàlla am na ñoo xamante nit ki xanaa xamoon am naa seet goo xamante ni ay la comprendre nañu waaye ñu ñëw ci chef bi ba pare comme man seetuma bu ma kenn woon naa ma seetal ma nag dama am ah. xam-xam bi rek mais aw jot googu wax dëgg yàlla waaye ñëwoon bu boobu nekk France mm. su ma jóg mosoon na émission xaw ma lan benn émission ba mu jëdef su ma jógee euh, euh, euh, émission Dubaï bi la xaw benn émission la ko doon wax daal Adama la Adama gisëral gis doo ko toog kooku de am na daal man Amadou Diawara très bien ah, très bien moom ma seet beeg yëpp loolu daa en tout ñu ëpp solo nga feebar nga ne lii moo ñu dal ko jox la dara mais xam nag duñ xam lan

fekk mu bëggoon ay tijjikoo yooyu. waaw wallaay mi ngi tudd Ousmane. Mhm. man man naa masque tur bi ngeen kii ngeen. ngeen xam nga mi ngi nii ah, ah, peut être mu nekk en ah, ligne peut être. xam nga Rasulullah Cheikh produit yu baax yi. abonné leen ci Tektal TV. fan yii la jot garab. fan yii la jot garab allo Ousmane. jox ma ko nii. allo Ousmane maa ngi maa ngi jégalu na dama doon def émission ba tudd sa tur nag far sa waay ne ma ma woo yooyu. Mm. pour pour pour affaire allo yaa may dégg. waaw maa ngi jéggul nag du yoon nag ma lay woo di génne sa tur ak yooyu waaye génnewu sa numéro yooyu comprendre nga. dama doon wax dañ doon def émission ak waa Tektal TV ñoom Cheikh Talif ba ma tudd sa ak yooyu rek comprendre nga pour comme bi li ñu jëflante ci ay affaire ay garabu ubbi ko xeet yooyu ba ma sopp man ba xool sa tur adat ko. wax la seet ne ah yow sa bi de man maa la jox ay garab nangam ne mais sa yow am nga ay ay ay chiffre rab ma tuma la mën naa ko adat sax waxaat la ko jox la benn chiffre wax la ba ba ba su ma juum dama laa may garabu affaire yooyu noonu. mu jege micro bi. waaw. waaw waaw moo tax waaw. Ousmane Ousmane wax ñu loo yëg. garab yi allo Ousmane Ousmane 30 secondes nga wax ñu fan nga fi nga jaar ak Cheikh rek ndax bëgg nga ci moom. ñi sant bu baax a baax. ma ne 30 secondes nga wax ñu mbégte mi nga am ci Cheikh rek ci liggéeyam. Euh, ci 2STV laa ko am na ay garabam mais mu ngi baax wallaay. mi ngi baax sant yàlla bu baax. Hmm. waaw waaw. nga ci moom daal. waaw bëgg naa ci moom kay. waaw ah, macha allah Ousmane yal na yàlla bëgg ci moom bu baax a baax. kontaan nañu xewal dikk loraange dakk yokk ko ñaan rek bu baax a baax. mën na seet tamit seetam neex na. waaw waaw waaw neex na de. seet bi ah. waaw waaw. ok waaw mais amul jotu seetal nit ñi nag moom euh, waa ñi client yi. moom santuma ko. <laughs> sa nee na yow santoo ko ko quoi. man maa sob moo sob rek seetal la noonu. xool turam. ma ah. xam ne su ma ko jàppale wax ko ko. jeex na. ma ko sax moo moo moo ko def rek mu gis après mu wax ma ko. mu wax la macha allah man tamit bu euh, jàppale ma ko bu baax a baax. ah kontaan na jërëjëf Ousmane macha allah xewal rek. merci. ok Ousmane. kuy def ak man émission. jërëjëf waaw nga bàyyi xel baax man ànduma ci dila ki tegi dila ak yooyu de. man li may def mooy nii ngay demee mu naturel rek man yii def may convaincre mu leeram lii duñ ko dulun programme dafa wax ba tudd mhm. Ousmane. nii mu nar a indi naan ñu nëbb lii ma ne ko woo mhm. mu woo far yàlla def mu nekk en ligne kii kii. kon nag sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. Cheikh kii nii borom produit ba nee nga ah. mën a 2STV mm-hmm. mm-hmm. la ma seetaane. xam nga yow itam ñi ma seetaan 2STV ak ñoom Kounkandé yooyu. moom su la ma seetaane contacté ma ñu jëflante. Mm-hmm. jëflante ci ay garab ay ubbeekoo yooyu noonu. après ba garab gi fa ba garab gi ba mu demee yàggul de motul sax 10 jours papa moo nekkoon Sénégal ñaari tali fii moo ko yóbbaale wallaahi. comprendre nga léegi ma sob ma sob sobtu daal ba xool turam Ousmane ba adat ko. arat ko yokk li ma si yokk ma xam ne nekk ci moom ay chiffres yu baaxul la baaxul 4 hmm. la ak 8 ak 0 480 la ay chiffres rab la ak ay seen hmm. a am jëk eh, soxna bu dee góor nga hmm. mën na la jural yeex am jabar wala nga ñàkk njabar wala doo ko bari le xeet yooyu quoi masha am nañ xam-xam bi ba lu ñu ci wax ci doomu aadama li ngay dund lañ lay wax bokkut a seet goo xam ne ay ay ku ñuul kee ku gàtt gi du demeewul noonu léegi nag yàlla ma wax ko saraxam teg si mu wax ma turu yaayam ma adat ko turam ak turu yaayam wax ko mu génnee ko nga xam day dégg jàmm xam ah, nga mënuñoo moo tax ma sant yàlla yal nañu yàlla may gudd fan yàlla yàlla barkeel numéro yaa ngi ci écran bi doon de seex ah, nag nga ñëwoon ci bopp buy metti moom mhm. bopp buy metti moom surtout mu sonal jigéen mhm. da dégg dof bu naan la nag bopp buy metti moo baax ci jigéen bopp mhm. buy biir buy metti baaxul ci góor benn baaxul da nga ñaan yàlla musal ci yëpp bu la dalee ba pare nag ñu fexe nag bopp buy metti nu mu deñee ci góor ak jigéen Cheikh waaw am na live moo doon def fan yi ci TikTok bi aw ma jot sax di ma Twitter bi supprimé naa ko. supprimé ko naa ko. yàggul dara mi ko supprimé. comprendre nga bi ma defee live dama doon mmh. a naa ko am ma dama koy maye. Eh, man namuma client bu def ay kii bokkul yi de ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax. comprendre sëriñ international la dem Dubaï def émission dem France Espagne Allemagne Amérique Angleterre ànd ak Tektal TV ca kaw ca kanam. Ah. Europe lañ jëm sax ak Amérique Canada. waaw ah. mhm. ah, kii dépassé na niveau TikTok quoi. Mhm. sëriñu TikTok yi nag ngeen toll foofu. kii mi mhm. ngi ci YouTube bi Tektal TV page Facebook Tektal TV l'officiel. Cheikh borom produit yu baax yi. kon daal bopp bi métti ñaata bi métti moom boo ñëwee léegi mu ki léegi am na laaj bi ko bi ma xale bu jigéen maam jaatudu si kër gi la dëkk. dafa demoon xew ñoo bopp bi di métti wallaahi lancé. billaahi am na ñu bari ñu seetaan ñu doon seetaan live boobu noonu. defuma ko mu ngir miracle dafa tombé rek ma doon def live nii maak sama soxna rek toog nii foofu mm, wallaahi la après mu ñëw mu ne bopp day métti xew la jóge après mu nag ma dem jël benn garab jox ko ne ko defal ko ni mu utiliser ko ni balaa kii mu jàpp nii matu sax ay cinq yooyu affaire bi seddu gi wallaahi la azim loolu moom jooni jooni lay dañ moom waaw moo xam bët waa bu fekkee bët day xasan wala muy lëndëm wala muy bas yëpp am nañ garab te si garabu wolof lañ koy faje mm. wallaahi te amul ay ay ay ay semaine ay ay ay toog ay mo wala ay semaine yooyu benn yoon la jaay garab nga utilisé. nga xam ne sëriñ su am fit si lu bari sax ñemewuñ ko. man de lu ma xas a wax ne lii mën naa ko mën naa ko. mën nga ko tappale nag nekkuma ci. kon daal nee na bët yi euh, silma xëy dëkk mën nga dara. loolu yàlla maye ko. yàlla mooy ah ak yàlla yàlla maye ko xam-xam bu dindi. bët buy bas. buy bas wala muy jooy. wala muy jooy bas bi rek. bas bi am na xamuñu olof boobu quoi. waaw comprendre wala muy xasan. wala muy xasan wala muy lëndëm. wala mu lëndëm. waaw loolu moo xam góor moo xam jigéen. jeex na mhm. kon euh, Cheikh borom produit yu baax yi ngeen di am bu baax a baax dugg nañ ci bët ak Cheikh. Mhm. ñëw nag ci yi nga xam ne que sa domaine la carrément looloo tax ñu naan Cheikh. Mhm. bàyyi fële seex Konté. nga sant Konté ñu naan seex borom produit yu baax yi. Uh-huh. muy wàllum ans. Mhm. ak fees. wolof di ko wax noo xam yaa ciy jaaral sa bopp. parfois waaw yokk ans. ak fees noo koy wax waaw yokk ans ak fees ñun moom. Mm-hmm. macha allah bokk na si peut être nag yooyu moo gën a fës nag. parce que loo gis rek am na luy gën a fës ak yooyu. waaw waaye ñun moom peut être xam nga du ma ndamu ne maa ko dàq Sénégal. waaw sañ naa wax loolu. mais xam nga tey man par exemple euh, ba ma la jëlee émission. Mm-hmm. ngay wax ci ans ak fees. ak mm-hmm. yokk. man naa ne. ca période ba ba mu yàgg laa gis léegi loolu commencé bari. ba ñu doonu li sëriñ ak lu ne kenn ku ne. ay jigéen ak yëpp. Mhm. ñenn ñi nga xam ne que seen niveau statut la toll mhm. sama produit yi nangam nangam mhm. audio yi nangam nangam façon yu mel noonu ku ñemee da ngay ñëw tegtal tax wax lu leer ñu laaj la bu fu ngay wax bu tegewu la nit ñi lay xam ne tegewoo ñu xeeb la na nga wàcc ci déedéet nga continuer bàyyi jàmbaar ñu continuer waaw seex ah, boo bëggee dégg dëgg de waaw produit buy may fes ak hanche wala sein ween maanaam si gàttal ci réew mi gàmbeñ naan ko hips wala wang si moo xam ci réew moo xam bi wolof naan ko lan wolof wolof bu fekk wolofu Gambien moo koy wax wang. wang waaw wang wolofu Sénégal bu fekk Sénégal moom jaay fonde. jaay fonde waaw jaay fonde. Hmm. comprendre nga moo xam. mais ans mooy fan la ans mooy ban fan ci parti. ans mooy comme comme ni nga koy waxee rek. poto poto corner rek. poto corner Ardo macha allah comme ni nga koy waxee. Saibane xam la. xam nga ah. <laughs> eh. xam nga mi ngi noonu daal wax dëgg yàlla. Hmm, hmm. macha allah moo xam. foo mënti nekk yàgg nañ koo jaay mm-hmm. bërki dem moo yi ñu ci mujjee jaay rek am benn tubaab boo xamante ne nii du tubaab sax métis la quoi mm-hmm. mais comme peut-être nag euh, foofu a gën a kiyeekali déggu sax wolof mais mm-hmm. Sénégal papa mooy sénégalais xaw ma yaayam léegi kon moom bu la waxoon ne ay ñoom Arnon yëpp seen jabar yi bëgg nañ yokk en chaque fes mën nga ko lijjanti billaahi am na beneen boo xamante benn femme bu nekk euh, al euh, fële Amérique Amérique day léttu foofu moom it fan yii la barki alxuraanu karim man du ma wax lu ma gëmul bu fekkee ay fen la yàlla bu émission bi àgg man gaw ma xaalis ay tappale man lu naturel la mm. sama témoignage moom xaajul jeexul mm. boo defee Cheikh produit officiel Instagram xaajul mm. témoignage xaajul jeexul ci produit yi bu nekk mm-hmm. comme li neex ci comme nga ay da indil fii la commencé wax. ba mu àgg ci fii fii la dugalee côte bi. Mhm. western wala nangam. Mhm. wala ria wala. Mhm. kii fu mu mën di doon daal. waaw mooy fi muy jaar transfert yi traçabilité. waaw nga gis loolu. mu ñëw yi ñu def kii tamit di leen dugal témoignage yu mel noonu. xool dialogue ba fa mu commencé. moo tax mu du ay naxaate. du ay naxaate parce que nit ki du la envoyé xaalis ba pare. albérique di la témoignage. mais sa sa bopp ci wàllum ans ak fes est-ce que àgg na ci. nga mën a lijjanti kiin biis ba mu toll ne biisu ngoone bi nekk 2STV mm. yi nga lijjantiwaat biisu ngóone tamit mu bëgg a toll ne kiin biis mu mën a nekk sa wóolu sa bopp ci ans ak fees bi xanaa bëgg ma turu turu ja dina bàyyi dana ma bàyyi wax turu jàmm ay émission waaw non non bii moom ni mu waxee garaawul comprendre nga exemple mais ku nekk sa gis-gis nga ko bañ a gisee noonu quoi ñoom ah, ah, comprendre xam nga nga ko bañ a gara mën na ko bañ a garaawal hmm. mais ñeneen mën parce que ku nekk sa gis-gis comprendre fi ma waxee comme hmm. noonu la quoi exemple nga tuuti waaw comprendre nga nu la neex boo ñëwee am na si kaw prise de poids prise de poids ak crème parce que dafa am prise de poids pour nga fees maanaam ci gàttal am na da nga koy booleeg meew meew waaw benn bi quoi bu la hmm. nee nga booleeg ak laax togg ko buñ la ko jëlee dañoo ni ñu koy utiliser bu fekkee am ñoo xamante ne bëgguñu dañu bëgg pour seen fes ak ange kese fes ak ange loolu produit naturel la à base de ak ay plante ñu composé kon daal yow ma la déggee jigéen bu ñëw ci yow jéenoom da koy may loolu am benn am na ci la ma doon wax sànq bu nekk ba Amérique dafay létt hmm. ma jaay ko ay karaw ay crème fes ange waaw ak wàññi biir su ma juumul waaw yaa ndax ñetti produit su ma juum wàññi biir si la bokk mais karaw ak si la bokk wallahi moom beneen cliente américaine am dafa ñëw si place am pour si mu gis xam naa mu changé. mu changé mu laaj ko looy kii ak yooyu wallaahi la bu fekkee fen la yàlla mu àggale. mu ne Sénégal loolu dul ko ci anglais li nga wax ma làkkante moom anglais mu envoyé ma ko mu ne man nga làkk ma ne man nan la jox ma ko téléphone ma ma wuyu ma ma wuyu ko. ñu hmm. làkk anglais yooyu parce que daf ko gis avant ni mel avant ak après. Hmm. sénégalais bi moo sénégalais bi moo bi ma jaay produit am dem na fan yii. Hmm. pour wane la fii produit yi ñun moom loolu ñun ndamu wuñ ci yii pour fekk ci ans rek ñun bàyyi la ñun waaw domaine bi fii la nekk daa xam kon daal jigéen ñi mhm. temps yi moom xam naa sax yëngal la dëkk parce que jigéen ñu mhm. sew ñi ñu ngi commencé wàññeeku ci dëkk bi ak ñu bare bare bare bare seex a kon ñu bare bare ans ak fees ku ci koo doon dem di nga ko bàyyi te boo ñëwee ci moom doo ko mas a bàyyi te boo mhm. ko bàyyiwul it yeneen soxla nga koy diis yu bokkut ak ans ak fees kon jigéen ñi euh, bu leen neexee ngeen di diw di nëbbu bu la neexee ngeen ne seex la wala na seex borom produit yu baax yi nee na wàllum ansa fees moom mhm. ci réew mii ak réew yii moom moo ak moo ko téye ba mu bu baax a baax a baax a baax mhm. seex borom produit yu baax yi léegi dañu ñëwaat bu ñu jógee ci ans ak fes mhm. nga bo ak wen tamit da nga koy yokk da nga koy wàññi. waaw même produit boobu la même produit la ak ay ñu composé ak ay jat si biir mm. waaw te mën a déggee yow nit ki ngay jagleel maanaam ans fes Euh, wen bu bëgg a wàññeeku ak ku bëgg a yokk yëpp da nga koy lijjanti. non wen bu bëgg wàññeeku aw ma ci xam-xam. amoo ci xam-xam wen bu daanu it mënu ko yéegal. yéen bu daaw bu pour développer ween ci kaw yàlla bindee la wen moo xam mu toll exemple pamplemousse. pamplemousse exemple quoi. waaw ñi nga xamante yàlla bindee la wen dafa plat spécial. waaw bi mënu ci dara. produit mënu ci dara. bu fekkee nag développé wu na lu yem. am na hmm. koo xamante ni témoignage ba sama Instagram koo xamante ni bi mu nekkee xale am ay xamu huit ans xamu sept yooyu yaayam dafa jël paaka ruux ween ay mu dellu hmm. si àdduna mu du amati ween à vie wallaay témoignage bi sama Instagram chef yaayam tamit def na erreur de waaw loolu tamit réalité la ah, aussi ah, xam nga rek ñun suñ ay at ci gën am ñoo xamante ni bu seen doom cëppi cëppi nii commencé sax ween am na ñu bari ñi seetaan xam nañ li may wax comprendre nga hmm. a rek hmm. wallaay ba ma ji itti sama produit wallaay ween dafa commencé ñëwaat mu sa mu bu baax hmm. xam nga eh, dinañ am xel la comme léeg nga kontaan nag li mbir yi jar nga yokk ko def addee ji nga yokk ko mu gën a baax daal ndax kontaan seex borom produit yu baax yi kon nag euh, dégg ngeen kon ans ak euh, fees léegi ku ko bëgg boo ñëwee ci moom di nga ci am lu kawe njort bu baax a baax mhm. léegi nag dina ñëw bi nga xam ne que nag moo yëngal kër yi fii nag dama joxe numéro bi sax soog a ñëw mhm. bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bët yi neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro seex borom produit yu baax yi 70 78 397 65 93

93 94 Cheikh borom produit yu baax yi nekk ci aslem am Instagram Cheikh borom produit yu baax yi l'officiel nga dis ko soxla ci man mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp. Hmm. mbaqus gi nag laa bëgg nga jox ma mbaqus gi. mbaqusu lan mbaqus gi mooy bi nga xam da nga ne mu yow leen di jot jëgërën nag boobu. ah ok mu doon kañ nag. moo nekk nii gars TV am ko. duñ jot benn intermédiaire yow la di jot ci jëgërën teg lay coono bu doon ko def audio bi moo nekk këru ma ko baax. këru 300 97 la daanaka sama émission bi doon def 2STV laa ko woon. parce que bëgguma di jox ay numéro yu bari bari bari ni triant fekk ah, demeewul noonu quoi des fois liggéey bi mooy bari trop waaw tamit mais numéro bu ne ay mille nangam message nekk fa tamit day métti xam nga mooy 78 78 397 3 moom laa leen wax ci kaw code boobu la numéro bi mooy sama numéro personnel boo xamante mhm. bu fekkee fee xaw na woote nga mu kii wala mu samay numéro la wax dëgg yàlla yëpp sama numéro la mais bii moom moom la la moom moo ko yorol boppam fu mu toll. waaw bu génn yëpp. Mm-hmm. kon seex borom produit bi baax na mm-hmm. ñu ñëw nag ci li naan ay du weesu bàyyi dee na. Mm-hmm. bu weesoo bàyyi dee na mooy ka nga dóoroon démb dee bu ko weesu weesuwaatee mooy Égypte toog na. Égypte ji fàttu ji na Sénégal dóor na ko Salah respecté na Sadio maane ay du weesu daal foofu moom mooy loolu. Jürgen Klopp. nangul dogalu yàlla nag ne Sadio Mané bii. yàllaa ko teg ci kaw Salah nag Salah nangu. Mhm. ndax moom it jullit la na nangu dogalu yàlla. Mhm. waaw léegi nag euh, ay du weesu bàyyi dee nag. Mhm. mooy yokk awra. bi gars yi werante ci àddina bi. ndax Cameroun yi bëgg ko. Algériens yi bëgg ko. Marocains yi bëgg ko. Français yi bëgg ko. Brésiliens yi bëgg ko. waa Mexique bëgg ko. te seex borom produit yooyu baax yor ko. ku loolu bëgg nga fésal ko. ci Tektal TV yokk awra bu amul benn effet secondaire. ci diggante bu gàt yaa koy def ci réew mi maa ko def ci réew mi ci àdduna bi. Mhm. ci àdduna bi. wax dëgg yàlla xam nga mhm. réew mi rek. waaw réew mi rek réew mi peut-être mën na daw mais àdduna bi daal parce que fépp lañ ko jaaj ci àdduna bi muy dem ñu koy envoyé. DSL wala GP muy dem. muy dem macha allah te teemu wàññaa ci xaajul jeexul. xaajul jeexul. wallahi mën naa la fi gën ay teema yoo xamante ne yu wér te wóor la. ñu xam ne ñu ngi sax bitim réew am na xam naa xam fan laa ciy nangoo. Mhm. man bu ma demee ba ku ma xam carrément. ah kooku gis nga semis bii ma sol sax sëq ak joor la ma ci bind Adama gisal tur bi moo jafe nag xaaral mooy bindi leen ko kooku moom moo ne ma del invité Cheikh bii lu bari ok mhm. su man gisareel naa tur mas na maa woo mas naa commentaire man ak yow mhm. ñu def émission mu commentaire affaire yooyu quoi wala man xamatuma tur bi man ci bari client yi moom dañoo bari wax dëgg yàlla doon wax sax ñu war ci liggéey gis nga semis yi ma yor ni mhm. man damaa jël rek simple la nii de lim ma ci indi li est-ce que matul conteneur moo tax ko gis sama yére bokkul de lu ma neex laay sol. Mm-hmm. leen di li may fanaanoo sax mën ngeen ko sañse baax na. Mm-hmm. gaa dama gis ren bii. Mm-hmm. dama koo gis mu apprécier nangu. ni lii. Euh, Amadou Diawara Air France. nangu ci côté bii. ñeneen ñoo xam ne que danoo nangu. waxuma leen nag waa ji la yokkal awra de. itam la yokkal ku mu xam. ba mu bind ko ci commentaire yi. Mhm. da ngeen di dégg daaj nag. Mhm. lu leen def Amadou Diawara ci leel la. Mhm. moo tax ma naan la leelu Sadio Mané mën nga ko lijjanti dinañ ci ñawaat waaw léegi ñëwoon ci yokk awra bu baax a baax kon man moo tax. au lieu boo indiwul commentaire. man dama am ñu ma xam ñoo xam ne dan gis. waaw police nag li mu bëgg mooy maa fekke te waajee fekke moom leer na nañ. Cheikh yow kon yokk awra ku dul ku dul sénégalais ku dul sénégalais kilifa ak kilifa. mag ak mhm. ndaw góor ak jigéen. Mhm. ak euh, am na koo xam ne que daf nekkoon euh, Italie. Mhm. doom ji dem ba am ay treize ans. Euh, awra yi nekk fa mu nekk rek soriwul bu baax. kooku it bu ñëwee. bopp la sant. Cheikh dina ko yokkal neen. Mm. gis nga yokk awra moom. du ñu si gan yaakaar naa bi a déggante. Mhm. boo maa nga Touba. yaa nga Touba. may la kat nii laa tudd. nii laa tudd nii lay nangam ak a lii laay def kat. si mhm. garabu cosaan laa koy liggéey ak karité. billaay ma sawar trop yokk awra. Mhm. nga waxuma si kii xam nga bugguma sax. fiñ yooyu parce que a a di est-ce que lii leer na lii effet secondaire mu ñëw ba mu ñëwee ba léegi. xam nga tey bu ñu demee bay dem Alma euh, Dubaï di def mm-hmm. émission. Mm-hmm. dinañ dem Allemagne dinañ dem France dinañ dem Canada mm-hmm. dinañ dem fu mu mënti doon ci àddina bi. yëngal ndax lan li man neex man ci japp ci gis luy dem ma ànd ak moom mu dem. gis luy yàqu nag ma bañ koo jege. comme nag moom dafay def preuve. preuve boobu la ñuy àndi dem. billaay xam na bu doon ay kalaame nii moo am. suñ diggante du neexee nii. parce que man kalaame mu neex ma envoyé mu metti ma envoyé. kon nag mi ngi nii mi ngi nii ak numéro am sant yàlla. Mhm. kon daal ku bëgg a yokk awra bu ñëwee ci yow bëgg ñaata fan. bu ñëwee man produit bi. waaw benn yoon la koy jaay am na ñoo xam dama leen koy jaay am na yàggul dara am na ñoo xam dama leen jaay ñu def seen produit utilisé une semaine. ñu koy gis nice bu baax. Mm. wallahi ñu commandé waat beneen te si une semaine dañ koy jot tey commencé utiliser gis résultat yi. waaw foog ni dañoo beneen pour denc. ñenn du ñëpp nag. Mm-hmm. du ñëpp nag wax dëgg yàlla ñeen ñenn ñi. am na ko mm-hmm. xam ne yàggul ko am na ko xam mm-hmm. produit yi moom macha allah Mm-hmm. Sénégal ak Gambie Mauritanie fépp ñu ngi koy tuddee di gis ay résultats. yokk awra bi muy nekk Tektal boutique. Mm-hmm. man dafa am sama benn xarit. Mm-hmm. bu ko mas a jël. bi mu ko jëlee. ma toog man maay toog gëm nemmeekuwaat la de. ah naka mbir yi nu mu mujjee. nii nangam nangam façon yi mel na mu ne ah, wax dëgg yàlla. moo ko soxna si. nee na lii te soxna si ba mu jël gis na. moom it boobu jël gis na nee bu may def émission nii. di wax. da ngay commentaire kër ku ma fa waxal ndànk nag micro buy tàkk nag sama yoon ne waruma noppi damay wax. waxama fi indi. kon maanaam ma gis ñi ñii ñu ne maanaam sanganu test la woon. Mhm. bu kii paree ñoom ñaar ñëpp ñu ànd gis. Mhm. bégee mhm. bu dul woon loolu heure bi maa ngi ñoom suñu diggante du neex kon ku bëgg yokk awra. Cheikh nee na amul effet secondaire te boo ñëwee mu yokkal la awra. waaw ba mu toll nu la neex. produit naturel produit naturel. karité ak ay plante. kon yéen euh, fu man di doon. Euh, nga nekk Amérique nga doon Sénégal nga doon naar ak. ak naari Dubaay doo leen nuyu ci anglais tuuti. nga ne li nga ndeysaan dafa am ku ma pett numéro am. Hmm, chauffeur la quoi. sama numéro Dubaay bi lañ doon waxtaanee numéro bi nag léegi doxatul. doxatul wallaay hmm. moom it numéro boobu la yoroon. Hmm. kii Mahmoud la tudd Mahmoud. Mahmoud moom sax du du du naatu ba pakistanais la. nekk yàgg na fa trop. Hmm. macha allah chauffeur la moom doon yóbbu su may génn yooyu. te hmm. xam naa bu ma delloo man xam naa fa fi muy liggéeyee mais numéro bi laa perte wala saa sama xel bi ñu oh, waaye maa nuyu ña nekk ñëpp sénégalais yeeg gambien yeeg naar yeeg ñëpp ña fa nekk. yéen waay Europe lañ jëm dégg nga macha allah nanu corona bi may rek awra fii Sénégal man maa ko fi def bu baax wallahi bu baax bi yow la te du tappale dooy naxaate lu naturel la. dégg nga ko seen amul tappale amul naxaate am na nag ñu bëri ñu wax trop. Mm. waa yor seen làmmiñ dañuy yokk awar ak yooyu. Mm-hmm. waaw mais ñun. léegi nag euh, jëmm comme ni may waxee. Mm-hmm. Euh, ban joueur moo ponkal léegi ba léegi joueur yi mm-hmm. ponkal yi te ayut. joueur bi ponkal Morgan nag laa doon jël exemple Morgan xewi na. est-ce que euh, Boateng. Boateng fi nekk nii moom ponkal la Sadio Mané. tuuti lool. Mhm. ah léegi ci terrain moom Sadio Mané ko fa ëpp njëriñ. Mhm. kii tamit même kii sax dafa sonal Sadio Mané ko bon kooku Vidal Vidal laa jël exemple. parce que dafa mhm. fat Sadio Mané comme Vidal. Ah, gis nga li muy ponkal ponkal ci terrain Sadio Mané du moromam. léegi maanaam wàllum ngande rek. mbir du foofu. bu desee ngande bi bu weesoo ba pare ponkal bi. maam yokk awara ba pare. bu bëgg doo yokk bi nag bokkut nag man liggéey bi. mooy. Ah, physique bi kattan bi daal. waaw boobu tamit da nga koy lijjanti. loolu kay moom am nañ ci garab yu wér te wóor mhm. te yàgg nañ ko jox ay doomu aadama mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi koy moo xam nga am ay 60 ans wala nga ëppal maa xam nga nekk paa wala loo mën di doon mhm. wala ñi nga xamante ni seen awra du jóg du jóg wala seen awra balaa moo jóg day yàgg day yàgg wala ngay gaaw a daanu ñu koy comme ni nga ko waxee rek a àgg daal a daanu waaw wala boo see wala boo see ak sa soxna ba pare wala ku mën a doon boo see ba pare ba daanu benn yoon pour nga jugaat day nekk problème ok yooyu yëpp garab gi da koy faj. ba mu wér macha allah te da ngay tibb jël ndox naan mu jàll. tibb jël ndox naan matin midi soir. dafa simple bu la neexee nga kudd yu ndaw wala teaspoon li ko anglais di waxee nga hmm. tibb lu yem ci garab gi. numéro yaa nga mëq jël ndox naan mu jàll. avant ngaa ndékk soigné ba pare ak soré ba pare. na waaw. jeex na kon nga utiliser ko lu ma 10 jours ngay toog. Hmm. doo fekk muy def muy travail. Ah, quoi 10 a wala une semaine am ñoo xamante ni non bëgguma waat sax wala yooyu. waaw ah. wallaay li ci am si résultat kenn mënu ko wax. mais 10 jours yi mu mën na ci sëy wala mu bañ a sëy waaw mu sëy waaw foofu laay waxee hmm. comprendre nga wallahi xam nga am na yoo xam comme si kat gëmul loolu ñun moom ñun moom xam naa sama sant ma mën na mën naa tudde seex témoignage seex témoignage waaw ñun moom mën naa wax loolu ñun moom suñu produit yëpp bu ko nit jëlee gis résultat macha allah daal seex sant waaw xam nga ñun moom euh, def moom macha allah daal li nga naan résultat mooy atta fi résultat sëriñ bu yaru tey def mhm. résultat moo mhm. a gënal sëriñ bu mhm. yaruwul sax tey def résultat baax na sëriñ bu yaru kese ñu naan da ngaa baax ay garab yi day dem say garab du yàgg ci man déet ma déet muy gaaw a dem Europe rek jox na ko CP yàgg na te jëriñu fa dara de déedéet ay daal sax dañ ko jox CP mu yóbbu ko moom moom mooy loolu ko quoi man fi problème bi lay dem mu àgg doon baax mu gis sa njëriñ foofu laa waxee ma tamit ak di wuyu sa téléphone ak di jox nit ñi respect euh, ba jàmm bu baax a baax a baax kon daal wàllum kattan moom da ko koy lijjanti. Mhm. léegi nag bu ñu jeexee ci kattan. Mhm. dañu ñëw ci jigéen ci boppam nag. Mhm. bu dul yëg bànneexu sëy. waaw jigéen bu dul yëg bànneexu sëy des fois nit ñi dañuy réere mbir. fekk émirut rek mën na la jàpp wala ndoxu siti ba doo yëg bànneexu sëy. xam ma na doon naan am na ko xam ne waaye bëgg mos ñëwaat sax. waaw ba bu la ndoxu siti jàppee des fois a nga foog ne rab rab rab la fekk du loolu. boo ñëwee bu fekkee loolu nga am ba doo yëg bànneexu sëy bu fekkee émérite moo la dal man dinaa xam dama laaj ay question rek ci kaw moom buñu déggee téléphone rek mm. wala samay ñi may jàppale si liggéey bi rek mm. dinañ mën a xam daal dina dal ba xamante ne parce que am na ñoo xamante ne loolu mën na leen dal fekk dañoo am feebar hémorroïde il faut ñu faj feebar hémorroïde mu bàyyi leen comprendre nga mm-hmm. wala ñi nga xamante jigéen ñoo xamante ne wala doo tooy ak yooyu noonu yëpp am nañ mm-hmm. garab yi nga xamante ni waaw ah, jigéen bu dul tooy yëpp da nga koy yëpp am nañ garab ay infection yëpp da nga koy di wallaahi infection yi yëpp am nañ garab wallaahi la xeet boobu yëpp wallaahi wallaahi mm. wallaahi te lépp lu ay lu garabu naturel la yëpp da nga koy garabu naturel la fibrome yëpp da nga koy cancer nga am ah, cancer billaahi walla cancer fa la naroon jël te xam dama ko sakkanal nii mm-hmm. pour bëgg laa jàppe nag na yow est-ce que nag wér nga carrément cancer mi ne daf koy faj. <laughs> cancer Cheikh man ci télé laay waxee rek dama wax lu ma gëmul. mais cancer mel mi la la wax. wallaahi bu nit amee cancer bul dem opéré. barki Seydina Muhammad jëlal sama garab. li sant yàlla. Cheikh nee na ku am cancer mel nga xam ne tubaab bi dañ lay jàppal jour parfois <laughs> nangam la war a dee. Mhm. Cheikh moom nee na da koy faj ba doo opéré doo ci sonnati. wallaahi. wallaahi kon daal ko ko am cancer ñu nar ko yóbbu bitim réew bu mu dem. ku nekk bitim réew jaaxal bi nañ ko indi wallaahi bu jëlee sama garab utilisé ni ma ko waxee de wallaahi dina sant yàlla ba bu demee sa hôpital dina nekk yow loo utilisé loo utilisé wallaahi la nga billaahi mais xanaa loolu dafa raxi ne garabu wolof la garabu wolof la garabu wolof te du ay dafa am nu ñu koy jëndee ci àll bi te lu te te te lu positif la du ay caaxaan waxuma fi nii rek pour ay waxi kasaw kasaw yéen nag comme cancer xam naa li ma am ni mu waxee cancer ke dugaat ci beneen de mhm. xam ma ko jàpp ne li mu wax rëy na ay du mhm. beneen ay ñëwaat na. Mhm. mooy dérapano. encore nga xam ne dañ naan feebaru noon la sax. Mhm. yooyu neen da koy faj ba mu wér. wallaay dama la jox ñaari garab nga di ko utiliser da raxas sa deret ba mu set wécc wécc wécc wécc wécc. dégg am dérapano. Ah. loolu moom du tax problème. Cheikh nee na ku am dérapano si toos xoma da koy lijjanti ba mu wér dérapano. Mhm. Cheikh da koy faj. ah dérapano si toos la ñu wax la waaw barke rasulilah. Cheikh borom produit yu baax ñëw na ci cancer ñëw na ci euh, déropano mhm. ñëw na ci euh, léegi nag ñu ñëwaat ci bu ñàngi mhm. prostate tamit nga xam léeg-léeg ñeeg yu xeet boobu comme du ma sa opéré boo ñëwee waaw damay tàngal li ma tàng bu la neexee boo ñëwee fii waaw ma jox la nga quinze minutes waaw nga dem sawi quinze minutes laa la wax quinze minutes nga dem tuuri ndox seet prostate comprendre nga. waaw wallaay la nga siib xam nga ñun peut-être xëy na xale lañ ñi ci benn côté mais dañoo am xam-xam. macha allah te peut-être duñ ci ndamu duñ ci naagu wala yooyu. Mhm. moo tax li may faral di ñaan ne yàlla may gudd fan ak wér gu yaram kese. Mm, macha allah te macha allah yàlla dinañu ko may. macha allah xam nga mi ngi noonu daal. macha allah seex ah, borom produit yu baax yi kon dégg ngeen ku fi indi feebar bu la jaaxal buñ ko mënee ah. faj ñu la mën ne buñ ko mënee faj ñu la mën ne asma nag loo def ak moom asma tamit wallaay asma bi moom boo ko utilisé moom bu xiinee ñu am problème bu nekkee fu xat am problème bu tawee ñu am problème lu xet boobu yëpp asma sama soxna rek am dama ko soxla jox pour mu jox ko benn benn doomu baayam sama soxna ah. pour mu jox ko benn doomu baayam man maa ne ko ma na euh, la ko composé léegi hmm. kiyal la ko kon ñu am asma di utiliser pompe bi bi da ne nag kenn sànni sa pompe en tout cas daal ku amul ay calmant barke rasul amul ay calmant boo koy utiliser de xorom ngay jël xorom teg ko si sa lamiñ bi teg ko sa lamiñ nga def ndox ba mu tàng jër mhm. boo defee garab gi noonu ak ndox mu tàng bi vapeur bi day génn mhm. vapeur bi comme ndox mu tàng day am lu muy kii mooy vapeur bi comprendre nga léegi nag si ngay sëgg fekk def nga xorom sa làmmiñ bi mhm. si ngay sëgg nag sëgg doo dugg sa bopp si biir ndox mu tàng bi nag mais da ngay sëgg noonu rek sëgg si sëgg ci da gis sa baqatay ni muy wàccee da nga koy def suba ak ngoon chaque jour boo ko defee une semaine nga gis ni macha allah dugg fu la neex wallaay la nga si dégg ngeen ko kon amul sama dem te ñëw te jooni jooni la amul ay amul sama benn cousin dafa am asma Euh, Kylian Mbappé bu mag la nag. Mhm. maanaam moom day wàññi at yi. Mhm. mais moo mag Mbappé ba ca France sax. comme mhm. nu mu def ba tudd Mbappé te mag bële moom jaaxal na ma lool. kon ku am asma. nee boo ñëwee di nga ci am ku umu nag loo ko mën ku umu. ne ko bu la laalee lu nuyoo sax tam si tëj say mbir. wallaahi umu gi ko dindi. yooyu yëpp bu ñëwee ñu kii ko bu soobee yàlla. Hmm. dañ koy jox loo xam ne da koy ubbi. da koy ubbi macha ak loo xam ne da koy xëccal macha allah daal moom moom moom wax dëgg yàlla moom ñun moom suñuy bagage moom hmm. mënuñoo ndamu galaaju kër nag ak galaaju place wax wax yu rëy moo tax mais ku umu wala bëgg bayre wala xeet yooyu yëpp maa ñëw ci yooyu waaw macha allah daal galaaju kër nag ak place yooyu yëpp am nañ ko ñetti ren lañ koy ren boo xamante ne ba bëgguma wax ñe benn bi si ren boo xamante ne bàmmeel buñ gas la nga koy ut comme bàmmeel boo mhm. mhm. daal am am des fois dem dem ko ñiy dem di gunge yi comme ñiy dem non comme maam xam nga defaa fois nit ki ñi dem ko armeel yi da gas yi nii da ngay gis dagg nii fekk waaw waaw reen bu génn ci bàmmeel comprendre nga waaw xam nga xam nga li ma xam de xam naa fa nga ñu dagge ko noonu nga xam kan fay suul sax du xam mooy kan uh-huh. ki ay mbokkam du xam mooy kan très bien lool foofu loolu la nekkul lu grave xam nga sa néew yi léeg-léeg daa mel dinañ fanaanal gas yenn yu bàyyi noonu wala uh-huh. wóorul duñ def loolu. ça dépend mais wóorul <laughs> comme noonu quoi. Ah. loolu laa koy liggéey ak yeneen ñaari euh, reen. yeneen ñaari reen nga wut ndoxu géej. ndoxu géej. nga def ko si biir. ak hmm. ndoxu géej bi nga tëj. nga tëj waaw nga def ko sa kër bu la neexee nga suulaale ko sa kër. sàcc mënul ci yow dara. sàcc ci yow nga yor gét nga yor gétt. wala nga yor foo xamante ni moo xam. place wala place boo xamante ne waaw hmm. bañ nga ah, daal bañ bañ nga daal ñu jëlal la fa dara yooyu. Hmm. wallaahi la nga xam kenn mënu ci yow dara. kenn mënu la nga xam. dégg ko ku a aar sa place sa kër léegi nag kun xas euh, sàcc ba pare na mu bëgg a jàpp sàcc beeg lim sàcc. loolu am na loo jël loo looy liggéey ci maam ku génn àdduna. Mhm. mooy xam nit bu génnee àdduna. première euh, togg bi nga ko toggal. Mhm. mat yooyu ngay jël ci këriñ li. waaw am na loo koy tàgg moo koy boole loolu sax mën naa ko maye wala yooyu. waxal waxal nga suy ko fa wallaahi day ñëw. tàgg ah. kon sàccati mu ne nga dem koo xam ne dafa génn àddina bisu dëj bi. wala bisu togg bu njëkkee togg. togg bu njëkk bi rek. taal yi njëkk a taal. taal la njëkk taal waaw taal la njëkk taal waaw ci matt yi bu defee kii këriñ noonu waaw moom ngay sàkk sàkk nga wut am ko toggee rek loolu am tàgg non loolu ma en kenn du ko toggee gaz ah, na ñoo xam dañu néew mbokk de seen xew daanaka ñeent ah, man de ah xamaguma de wala mosuma ah. gis ku ko def ku toggee gaz yooyu de <laughs> xew kii ku génn àdduna ñu ne toggalee gaz am leen yitte ndax boo xewlee ñëpp wuti ah moom nga boole ak benn tàgg benn tàgg tàggum picc wala tàgg tàggu picc la mais picc bi dafa am picc xam nga picc yëpp bokkuñu daal. Ah. Ah. waaye jëru ma ko la gars yi. waaw sëriñ Birane Kadi jëru ko xam naa. <laughs> xam nga moom nga rassula dafa wuli wuti xam-xam. macha allah daal bu man ñaar yam ci bu man mm. ñett mu yam ci bu mënul mu mm-hmm. jàngi. Mm-hmm. bu li mënoon réeroon tamit moom mu xam ne nag am na lu mu def lu ëpp daal. Mm-hmm. Euh, Cheikh borom produit yu baax yi kon teg émission baa ngi neex bu baax abonné leen Tektal TV de. ba page bu rouge ba page Facebook Tektal TV l'officiel même émission bi daf fay daw. Euh, Cheikh. léegi nag ñu ñëw ci euh, jëm nañ prostate tànk yu metti nag Mhm. mën ci dara ba xam ne nit ki jóg sax day jafe bu ñëwee ma faj ko ba mu wér ki ma si mhm. mujjee faj wallaahi bii ngi ci kër bëgguma wax ñi fang dama leen concurrence mhm. te wallaahi demeewul noonu billaahi wallaahi wa taalaahi dama nekk ci këru sëriñ ci la nekk bëgguma yooyu sax moom bëgguma comme si dañ leen di concurrence fekk wallaahi xaajuma sax bay concurrence ak ñoom du du yooyu tànk yu faj dama ko koo may wallaahi du sax mm. du paayeeg maire yi la ëpp lu ñuy lu ñuy kii daal mhm. façon boobu kon tànk di métti di ruux wala muy tàng jër di métti ba mënoo dox mhm. wallaay boo ñëwee jël sama garab ci une nga tane yow garab la wala frotté garab la garab bi da nga koy bu a neexee man maa dama koy composé wala bu la neexee nga sa karit ak sa xorom nga defa sa bopp dama la garab bi su ma neexee na man maa koy composé comprendre nga mhm. beneen bi dañ koy naan benn bi waaw pour photo parce que photo bi day fuy méttee yëpp lay fajaale. comprendre nga. te si garabu cosaan laa ko liggéeyee. te macha allah garab bi du ay tapa du ay kii. nekkul hmm. protéine gi si marché bi tamit kon ba mënul dox moo xam ak at yoo mënti am. Hmm. nga nekk mère nga nekk pa at yoo mënti am wallaay lazim boo jëlee sama garab nga gis résultat yi amul fenn. da ngay dox bu baax a baax moo xam tànk yi du ruux bay bëgg a dee. Hmm. wala say yaram ak xeet yooyu yëpp. waaw da ngay dox. macha allah bi day Adja Diop mère Magu Kan Abdou Khadir Diop. Mhm. moom it ak mux mux tamit tànk yi parfois mooy loolu mhm. ah. Cheikh ku lekk tooke nag ku lekk lu bon daal. ku nekkul bu ñëwee de ma jox ko mu naan mu wàcc ko léegi. mu wàcc ko bu fekkee dafa dafa lekk lu bon. Mhm. bu fekkee daf ko daf ko lekk laa wax de am na benn paa pourtant sa kot su ma juumul xam na la su ma juumul laa xam na la parce que client dañu bari trop la expliquer ma côté bi daal dëkk boobu noonu wallaahi fii la ñëwoon daal su ma juumul daal xam na la su ma juumul nag laa wax Mm-hmm. wallahi fii la ñëwoon ci sees bi mu nexee fii la toog benn timis mm-hmm. ma jox ko garab fekk dafa amoon eh, émorite ak yooyu mm-hmm. biir bi rëy yooyu noonu maa ngi fàttaliku de am na ku ma fàttaliku. wallaay la nga si image bi lay fàttaliku. xam nga macha allah daal maa ko doon la ñëwoon ci kër gi expliqué ma su ma jumul kay xam na la kay su ma jumul laa xam na la wallaahi ñëw ma daal moom jaar nee na ma <laughs> lim lekkoon dafa xasaw xeeñ xun xun xun xun xun hmm? ndax yow da nga doon dee. dafa war a dem attaqué ko ko jox lekk de. billaahi waaw wallaahi la leen lekk bu baax. wallaahi yéen ñuy soxal moo tax dee leen di yàkkamti ba du ngeen wax bismillah di lekk rek ñëw tigi mhm. moytu lekk ci mbedd moytu tamit ku yoon mhm. wóoluwul tamit jar na bu naree kii rek nga ne ko damaa woor. Mhm. waaw waaw ku wóoluwul mu la jox ngay lekk tamit yooyu mooy loolu ko kon seex euh, tànk yu neew yi tànk yu metti yëpp daal da koy faj ak tànk yu lux. tànk euh, yu neewee yëpp wala loxo bu neewi te ba léegi tab nag tab waaw taap mooy comme loxo bu ne nga am taap. loxo bi am ku nekk sama nekk départ na Samba Amar. loxo bu neewi këru loxo bu neewi taw bën. bëy moo ko sonaloon. wallaay la nga bu jëlee garab gi bu ko utilisé moo xam heure bu mu ko utilisé. heure bu mu ko utilisé balaa heure booboo ñëwaat gar euh, taap bi bën. taap bën. loolu moom amul sama. taap moom nee nañ cat la daa. waaw am nañu naan cat la. même mm-hmm. bëñ bi metti sax des fois si seytaane la nekk. am nga mm-hmm. Mm-hmm. cat la am na yoo xam ne seytaane xam seytaane day am feebar yoo xam ne seytaane daf ciy daf ciy bokk même mm. mm. feebar yu bari ah même naa la may secret boo xamante ne boo ko amee kenn du la korte ba jàpp la secret bi ah dayu mbaam ngay jël puubi mbaam <laughs> xam-xam la naa ko moyee ni sax parce que gars yi secret kenn du weer peut euh, ginnaaw këru mbaam moom ngay jël bu góor bu góor waaw mm-hmm. ak gerte ak gerte gerte tax am na gerte doomi gerte mais dafa am xam dafa rond. gerte yoo xam ne a am ñu bindoo xaw a toll nii. gerte komb xam dafa xaw a toll nii xaw a rond noonu. waaw boobu da ngay bënn gannaaw këru mbaam àll bi. waaw bënn kii bi xam boo ko kiyee day wow kong bu fekkee da nga boo ko weer day wow kong. Mm-hmm. comprendre nga bënn ko kii ba gerte bi nga xañ kii yettee yi comprendre de. ah ah ginnaaw këru mbaam bi maanaam xam nga xam naa li nga wax oh damaa jum damaa jum. Ah. ok sax may def nag bari nit laay nekk gis ngeen de. fan yee mami dafa day wax ak man ma lan. maanaam si moom ma expliqué nit ñi nga xamee. Mm-hmm. dayu mbaam maana waaw dayu mbaam bu góor. bu góor comprendre nga dama koy rafetal moo tax ma naan ginnaaw moo tax ma naan ginnaaw këru gerte gi su ma amoon gerte fii. amuñu sama bagage yi waaw ki mais comprendre na ñu jël gerte bu rond bi bu rond ma nekkul nag nga toj ko ba pare doo ko toj doo ko toj dafa am gerte xam ne gis yoo xam day rond yoo xam bu rond nga jël doo ci biir waaw nga maam minute bu nekk daanaka mi ngi yëlëb nopp yi ku la sànni korte ñoom mbaam mi yëlëb kii mu toj wallaay ah, la ma ci korte dégg nga wallaay kilifa gu mag moom ko jox boo xamante ni daf ma woo seetaan ma télé ne mm. peut-être sama dëggu moo tax ak xam-xam mu ne si garab seetaan laay yëngu moom may la si loo xamante ni peut di nga sant yàlla daal macha allah te xëy na ñi ngi sant yàlla bu baax nag ci macha allah yàlla yàlla barkeel a baax lu ma wóor léegi Cheikh euh, cat nag nan ngay moom cat laay boole mm-hmm. cat ñëwoon ci cat ba pare. Mhm. loo ciy wax ak loo boobu secret boo ci cat. ku cat moom doo may secret cat moom li ma koy liggéeyee moom. Hmm. <laughs> bari na trop. bari na trop mais day dañ koy suur boo koy utili la jàppoon boo koy si duus nga koy suuroo. ci duus nga koy suuroo. Ah, dinaa jox tamit lay sangoo. dina jox lay mais ci duus ko suuroo moom macha allah. day mel ne conformité. wallaahi la nga sim. billaahi wallaahi wa taalaahi. léegi Cheikh nan la mel ci tey par exemple ci kun liggéey. Mhm. lii ma wax nag lu intéressant la ngeen bàyyi ko xel. Mhm. équipe nationale maa ngi leen di wax nag yéen ñi ci fubal tubaab yu ñuul yi. Mhm. xeetu Abdou Diallo bi seeni jee ak nangam ñu xees ñi. Mhm. ni ñu qualifié coupe du monde. Mhm. billaay ku ci sàggane sa bopp. doo dem. wax naa leen lu leer Afrique la nekk de. wuti leen di bàjjan ak i nijaay tey seetaan tegtal xool ñu baax ñu leen doy. ngeen teel a jóg seen bopp sinon. mooy loolu. wallaay Afrique la nekk de. ngeen xool ñi ngeen di may moyo yi. wallaay ngeen xool ñi ngeen di may dàll yi. yéen ñi xool ñeeni may kawas yi uh-huh. Sadio Mané amul bàyyeeku de surtout yow nag dañ laa wékk ci yaakaar parce que fu Sénégal di toll ci football weesu nga ko te ànd nga ak yar ak dal ak maandu moo tax lu man ñaanal da ñoo sagal ci Liverpool sagal ñu ci coupe di monde sagal ñu ci coupe d'Afrique uh-huh. ba pare nag boo gisee nit sax yaay dox wut si ko uh-huh. oyof gu mat sëkk koron dañ lay ñaanal yàlla musal la cat ak yu baax yi nga doon def social ñu koy wax mais bii nag sur le terrain kenn amatul lu mu la wax ba Sénégalais juddoo ci football ba léegi kaw mais li wax daal Aliou Cissé. Mhm. gars yi heure bii la. bii laay ku ci sàggan doo dem. Mhm. te même bu ñu fubal éliminatoire yi nañu wut ay booy Grand Dakar yooyu ñu fubal ñu éliminatoire yi balaa yéen ñu gaañal ñu suñu séeréer balaa ñu dem. Mhm. coupe du monde il faut defar bu baax a baax. liggéey nag. ak ñi ngeen xool fii nii watoo tamit watu. coiffeur yi ngeen bàyyi ko xel bu baax seen karaw yi. Cheikh loolu wàllum euh, ku liggéey. ak ku bëgg mucc ñu liggéey ko boobu itam noo ko lijjante surtout joueur équipe yi. ku la dénkoon yooyu yëpp am na yaa ngi wax affaire comme karaw yooyu. waaw am na am na am na am na lu si yet loo xamante da nga dem karaw koo xamul ngay dem uti ko. karaw koo ah. nga wut karaw ko xam boole kaat li ma koy samay bagages ak yooyu. ay sunguf ak yooyu nga suuroo ko. Mm. waaw cat ak liggéey yooyu yëpp lay dindi. yëpp lay dindi. dama la nga yoo xamante ne kii la nga a ëpp li may kii mm. yaa ngi tudd léegi ay nañ bañ a maye moyen yeeg. mooy nañ ko wala may ko wax a toog fenn wala bu fekkee fenn la yàlla mu àggal émission bi. benn Waly Seck ci boppam. Waly Seck ci boppam mu am ku mayoon may siletement bi mu doon sol après concert. barke Seydina déggal nga wax de toog si ay xale jigéen naan ko ah si li ma ko def ci laa ko def moo tax nangam barke. ci la bu fekkee fenn ma gudd fan. bu fekkee la. tay nañ ma waat wala yooyu billahi wallahi wa dégg lii xibaar la ma ko wax li nga tudd moo tax mu dem sama xel bi Wally Seydina Mohamed Wally Seck xoolal wallahi ñi ma mhm. ay ñaar ba mhm. mais peut-être nañ ko bañ a foog kenn kam ko foog ah. baña te kenn ka nag mën na bañ a waxi wax yu dofam ba xam nga mu ne la ko wax yu mel ni barki mhm. Seydina Mohamed am ku ñëw wax ma ko bëgguma wa Wally Seck xam la wala ma gëwuma yooyu mais noo ko def da nga ko lijjanti sans Wally sa da nga ko lijjanti laax. non non loolu sama ah, ah. waxtaan la woon nii rek. Ah, après nit ñi nettali la affaire yooyu la kooku doon ko waxaale loolu. waxaale xam ne ah kon kii nit ki comme la nit may la lii ngir ngir comme xam nga may la ko. may la ko kon ngeen bàyyi ko xam ba loolu xaw ma. leen daal naa leen ko xam Sadio Mané booy tubaab yi nekk Liverpool ak yooyu. moo tax Sénégal nga jël sa maillot rek xëpp ko ko amul problème. da ngay def mais fii booy joxe sa dal del xam ñu ngi joxe de. baax na ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon mhm. Wally Seck dégg nga li kii wax mhm. booy maye yëpp nga bàyyi xel nit ñi daal mhm. euh, léeg-léeg ka nga gën a wóolu mu yor jikko ki nga wóoluwul tamit mu yor jikko bu baax lu ne am na yàlla nit li olof naan li lay faxastal la jege la faxastal xam nga lu la faxastal moom daf la jege daf jege bu fekkoon daf la sori nii du la mës a faxastal du la faxastal comme si zahir ma am peut-être comme nit ki moom bu la jegee xam nga pour def la lu bon te lay gën a yomb ci lay gën a mais joueur boo xam ne que bëgg na fii coupe du monde benn kenn du ko fi Mhm. fokk mu xam na ne mi ngi toj bu dee football la rek day dugg mu mhm. bañ am nag ñu liggéey ko ba du dem coupe du monde heure bi bu ñëwee dénk la boppam nga génn ko ci bil bu ko neex sax bu ma wax li mu bëgg su ma ko mënee ma xam li mu ma su ma ko mënee ma wax ma ma defal li ma def mhm. waaw bu fekkee cat da ko toppit wala dañ ko liggéeyit ko lu mu suuroo ci duus ci ko suuroo ci bis boobu lay toj ci saasi wallaay la nga sim bu ko neexee am na loo xamante si garabu poftan laa koy liggéey ci reenu poftan dafa am nag nu ñu koy jindee ci àll mën naa soo xam def waaye ni ma ko jindi ak lu muy àndal ak yooyu waaw xam nga waaye sàcckat yi dañu ma a piraat ay wax ak ak jël ay jël xam-xamu jàmbur mm-hmm. loo xamante ne nii xam nga da ko jindee ab taal ab taal taal nga taal dara kos ak ñax mu tàkk mm-hmm. ak ay ginnaaw kër ay ginnaaw kër ginnaaw kër yooyu nag beneen ginnaaw kër leneen la mm-hmm. ak leneen la xam nga bëgguma dévoiler yëpp ay code la ak ak yu bari ak yoo xamante maanaam pour boo ko sangoo wala ak yeneen yu bari dama ci am xam-xam yu bari yooyu moom yëpp ci daal maanaam xeetu liggéey daal moom mu dellu ci kawam am ak yeneen yi muy àndal mm-hmm. wallaahi la ku la liggéey mu dellu ci kawam amul leen wax équipe nationale ngeen bàyyi bu baax a baax seen bopp de Afrique la nekk di tubaab mm-hmm. tubaablu di bàyyeeku am am na sëriñ su mat a xeeb mais am na sëriñ su mat a xeeb mm-hmm. boo dajee ñu bon ñi ba xeeb sëriñ nag ba bàyyeeku dema kuk neen génn kuk neen rek waaw Afrique la nekk de euh, Aliou Cissé nag ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yow wax dëgg yàlla xam nga dara xamoo dara Sénégal yi nañ wax lu leen neex. Mhm. mais coupe du monde ba Sénégal dem nga takk capitaine ba yeneen ñaari coupe du monde yi Sénégal dem nga yóbbu leen ci comme entraîneur kon yal na la yàlla lafal bu baax a baax a baax ñun daal ni ngay dundee laf cat daal jël coupe du monde bi rek mu ñëw lu ne mën na nekk nag. Mhm. Euh, Cheikh borom produit yu baax yi. Mhm. ku bëgg ay kayit nag nekk bitim réew nga xam ne que liberté am sax day manqué pour mu ñëw Sénégal ak yooyu noo ci man ay kayit. te nañu waaw loolu. <laughs> damaa sama gars yi may jàppale si liggéey bi. waaw wallahi li gars yi toog fii di ratatatata wala ñu ne si internet bi di ratatatata yooyu ñun mënuñu yooyu quoi suñu ah. def suñu émission dañuy toog wax li ñu xam ak lu ñu gëm pare si des fois nag gars yi dañuy bëgg ku leen ñu nax ah mais yow yaa ngi nii yow ku ñu déplacé nii ànd ak ñun dem Dubaay defi émission def yor suñu lekk suñu naan suñu xood suñu ah. lépp suñu nelaw suñu gént ah. loolu ku ko mën na def ah mi ngi nan de <laughs> ah saa saa gëree nga nag te ñu ngi nii di waajal Canada waajal Europe <laughs> dem fu ne ah mm. waaye Cheikh borom produit loolu kay mooy loolu bilaay kon daal yow dal lan la xamee daal wallaahi dal rek yor hmm. xam-xam nag toog mais gaa yi bëgg ku leen di jay ku leen di wax ay jinne xeer yooyu nax li hmm. loolu lañ gëm quoi koy lijjantee moom kayit li ma koy lijjantee dafa am loo xam dañ koy bind waaw la nga sangoo ko hmm. ak loo xamante ni sunguf lay nekk am na ñoo xamante bu fekkee fu wàllu ubbiku bokkut ak am na sarax na pour kayit ji sarax boo xamante ni man maa koy génnee sarax ko ku ma neex yaa koy génne sarax ko waaw ok wala spécial pour bu umoo ma xam ne ay mbiram ay rabak na ay chiffres yu am chiffres rek man mhm. dinaa problème produit bii laa bëgg wala lii ma ma dal faj la nangam mhm. nga sant yàlla nga nekk bitim réew wala foo mënti nekk nga umu Mm-hmm. buñ la joxee suñu sunguf soo xamante ni moom barke Serigne Touba boo ko utilisé wallahi la nga balaa dix jours nga commencé gis loo musul gis si àdduna. Mm-hmm. kon même ñi yor alal bu nga ci. alal bu dul taxaw loolu moom amul sama dënte loolu moom comme exemple man ba des naa ne damay def fa ay secret man xam nga. alal bu dul taxaw si li ma koy liggéeyee comme nga gam ci àll fekk fenn benn kàmb boo xam ne dañ ko gas bàyyi ko noonu nga gis ay affaire dugg ci wala ay ñax di si sax. waaw foofu lañ koy liggéeyee. xam nga comme kàmb nii day ne day ñëw am luy dugg si biir yooyu ah. xam nga ilaa yow mi din du génnaat hmm. comprendre nga si loolu lañ koy liggéeyee nag léegi nag boo doonee koo xam ne que nag defal nga ko loolu pare kooku doon yàqkat nag bëgg jigéen di financé dugg ci lu farata luy oto di yàq kooku am boobaa moom la am na ñoo xamante ni ñoom ñoo tey xam nañ ni lii du dara kenn defu leen dara wala alal bi kiiwut noonu hmm. am ñoo xamante ñoom ñooy yor seen xaalis di ko yàq mu leer na lii ñoo lay yàq quoi ñoo ko tey xam nañ li xew am ñoo xamante ne da leen leer bi ñu defee pare na waa lii man nu ma ko mënee bokkuñu quoi bokkuñu macha allah mhm. kayit yi daal moom comme kayit yi ay sa jat yi doon ci mosal ci jat yi tuuti jat <laughs> loolu ay secret la gars bi nga xamoon lakk dëkk bi loolu kay mais benn jat boo xam ne kenn du xam lu ko tax a jóg rek nga ñamul jat lu ko tax a jóg non man sama jat benn leen kese la waaw ci produit yi pour yokk awra bi ak crème bi ah. loolu la kese la jeex na kon amul leneen léegi nag comme ay kayit daal koo xam ne que yàgg na bitim réew bëgg a ñëw mu tëgg ko Cheikh day lijjanti kayit yi bu baax a baax léegi ku bëgg liggéey nag koo xam ne que bu dee ba xam fii Sénégal mhm. da déposé demande mhm. euh, visite bi moo koy jàppee baraada ataaya bi muy jàppee da ko fay gisaat boo amee seetlu mhm. comme Sénégal boo li naan France dañ lay laaj sa diplôme Amérique laaj loo man Sénégal laaj la ku nu boole fii na ñoo xam ne que wut liggéey moom jàpp nañ ne warul mën a nekk saa ñu xam kenn quoi loolu loo ci man kuy wut liggéey kuy liggéey da am na loo xam sungu bu ñu la ko joxee waaw dañ koy boole ak jël mm-hmm. dëbb ko boole ak sunguf si mm-hmm. nga sangoo ko waaye boo koy ko sa bopp doo la a contrôler lépp maanaam yow mën nga faa jaar dof waaw ci yoon ci yoon pas dof sax mais peut-être dañu la yóbbu ci yoon maanaam daal ndax liggéey yu bari ndax liggéey yu bari dégg ngeen ko boo koy utiliser Ah. du laa sa bopp fii lay tàmbalee. fii lay loolu moom macha allah daal te garabu wolof la te lu ñu hmm. wóolul la macha allah. macha allah waaw pour nga xamante ne maanaam dafa bëgg liggéey. Hmm. waaw la daal. léegi waxtu bi dem nañu bayra bu saf sàpp nag nga tàggul ku ko bëgg. bayra bu saf sàpp moom ku ko bëgg moom da ñëw rek. waaw ñu jox la bayre bayre yi ñun bari nañ façon bayre bu fekkee da nga bëgg rek ñu lay tudd kese kese hmm. foo rom bayre bayre ba am xam dafa am man samay bayre dafa am spécial uh-huh. am na bayre xam ne kese dafa ànd ak moo tax lu suy bari dama lay jox li nga xamante ñetti façon garab yu bokkul la boo xam ne dafay bayre xam ne dafay xam ne si mm-hmm. na boo ko def sangu maam ay jigéen ñoo lay bëgg spécial jigéen ñoom ñoo njëkk ñoom ñoo njëkk kii ñoo am njëriñ wala jigéen ñoo lekk yi la ñoo ah, am njëriñ ñoo amata njëriñ yéen daal maam ñëpp ñoo am njëriñ ñoo am njëriñ bu fekkee da nga bëgg a bayre rek moom Hmm. wallaay boo ko utilisé une semaine commencé gis résultat yi amul fenn ki ma ko hmm. mujjee jox mi ngi hmm. mu ne ma kii lañ ma wax sax bëgguma sax di ko <laughs> caaxaan xam nga ak yeneen ak yeneen bàyyi moom sa waay moom bu fekkee da nga bëgg ñu lay tudd rek waaw wala bëgg xale jigéen di kii rek wala ñeneen ak yeneen boo ñëwee di nga ko am moom macha Njaay yëpp wala Bayra Njaay yëpp wala nga bëgg ubbeeku rek waaw bu soobee yàlla moom macha allah moom ak joueur buy boo xam ne chaque loolu moom xëy na xam nga nit ñi des fois loolu ak njabaar la non loolu des fois nit ñi comme mën nañu réere mbir xam nga comme bayre moom man ko rek leneen lu nga koo nekk wala mën nga mm-hmm. koo kii comprendre nga mm-hmm. mais comme boo nee tur bii rek man xaw ma dama ko mën a expliquer pour ngeen comprendre quoi sa nga am ay homme di match yooyu noonu mais comme homme di match bi taxu koo gis mais bayre ba mën na lépp loolu exemple quoi jeex na comme loolu quoi waaw. macha allah léegi waxtu bi dab looy waxtu bi dab looy tàggoo bu koy sant ka gërëm. Mhm. kontaan nañu baax a waaw maa ngi nuyu ñëpp rek di mhm. sant waa ki Tektal yëpp. Tektal TV di nuyu ñi jàppale si liggéey bi. ñu Moodu Moodu Liwi. Mhm. Ah, di nuyu Moustapha xam nga. di nuyu sama soxna di nuyu clients yi nekk si àdduna bi yëpp fépp fépp fépp si àdduna bi Sénégal Gambie Mauritanie Europe partout dans le monde macha di nuyu xam nga waa tal gi yëpp waa sa gars yi ñoom. Yusufa Yusufa waa France ak Europe Air France. Air France Amadou Diawara Amadou xaritu Yusufa. Ah, maa ngi nuyu ñëpp macha allah maa ngi jégalu des fois dañu leen message ah, ma yàq a tontu wala yooyu ak yooyu yëpp. Ah. ak ñëpp di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ñuy bëggee di mm-hmm. nuyu waa diaspora bi di nuyu waa Dubaay macha allah. Mm-hmm. di nuyu ñëpp fàttewuma kenn wax dëgg mm-hmm. yàlla di nuyu képp ki nga xamante ne ñu ngi bëggee. macha ñuy bëggee daal di nuyu ñëpp daal macha allah a baax jërëjëf Cheikh borom produit yu baax yi. Euh, mhm. kon nga gis ko ci Instagram bi Cheikh borom produit yu baax yi. Mhm. Euh, nga defal 78. 397. 65 93 78 397 65 93 beneen bi 78 475 06 06. 78 475 06 06. beneen bi 70 592 93 94. 70 592 93. 94. Mhm. seex borom produit yu baax yi euh, nekk ci aslem nga dis ko soxlum ci mën def ko leen ñu bàyyi yàlla mi xam tarewul dara te mën na lépp di leen ñaanal di leen baal àq ci weeru tedd wu sell wi ñaanal leen yàlla defal ñu xewal ak tawféex ak mhm. sutura bu baax a baax a mhm. baax a baax seex baal ñëpp àq baal nañ ñëpp àq ah baal nañ ñëpp àq di baal ñëpp ci weeru tedd wi wu bi ne àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance balaa boobu Ousseynou Ly Allemagne ak seex ñëw def si émission Allemagne dégg nga ñi ñëw Euh, Dieynaba Diabaté Allemagne ñaani ja Allemagne Mami d'enfant mhm. France ñu ngi ñëw Europe euh, Ibou Dieye Espagne Serre Fall Espagne Fatou Diop Amérique euh, waa Canada gërëm na ñëpp bu baax a baax a baax mhm. égatéeni bi naan dal Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci borom këru Ganga Wade Baye samba Diop nekk ci bu Derkle magu ma rakku ak magu Cheikh Abdou mhm. Oumy Kane yaayam am saay baayam si Sow Gaw Sow nekk ci nekk ci équipe technique bi Euh, soxna May Diop ci réalisation bi Samba Amar ak euh, soxnaam Fatima ci Espagne gërëm nañ ko ak Fadel Naam. ñëpp mhm. gërëm nañ leen bu baax a baax gërëm nañ Tamsir Diouf Maroc euh, Ibou ta kii nu mu tuddati Malick Jite Grèce ñiy seetaan Tektal TV di ko bëggee bu baax a baax Ramatoulaye Ndoye état États-Unis gërëm mhm. nañ ñëpp xewal dikk loraange dakk Tektal TV télé di ko toll fii chaque borom produit yu baax yi ba mu ba léegi ci la mhm. produi xew. ndax roy ak pire nag bokkul. chaque borom produit yu yi ca kaw geldi.